Mesdames, Messieurs, bonjour merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On est mardi, euh, jeudi la journée mondiale des droits de l'homme. On parlera euh, de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Un document vous sera proposé tout à l'heure, mais en attendant, comme vous le savez, l'information se réveille très tôt sur cette antenne. On retrouve tout de suite la rédaction pour le premier journal de ce jeudi décembre Des infos présentées tout de suite sous forme de bulletin par Fatima Ba Diakhaté. Bonjour Fatima. Bonjour Pape Cher, bonjour

cas de genre de mort. La famille réclame toujours justice. Une rencontre s'est tenue à Dakar ce mercredi. Compte rendu euh, de cette rencontre avec Aïssatou euh, Paifal Diafaraba. SMS, lettres, courrier, Facebook, une forme de soutien aux atteintes aux droits humains. La campagne d'Amnesty International, marathon des lettres, un appel à la liberté et à la fin de l'impunité. Nous aux Africains, à l'opinion internationale de se mobiliser pour demander au gouvernement d'arrêter les exactions, pour demander également aux responsables, aux dirigeants locaux de, dire, de, de faire en sorte que les répressions qui s'exercent sur les, sur les militants des droits de l'homme, sur les personnes individuelles, sur les leaders d'opinion puissent puissent s'arrêter. Une campagne qui porte ses fruits, selon le chargé de campagne. Qui ont pour le cas de Dominique Lopi à Kolda, il nous a euh, pour que justice soit faite, que, la, que les personnes, les policiers qui étaient impliqués soient, soient libérés. Euh, nous avons également les cas de, jeunes filles au, au, au, Nigeria qui avaient accès aux services de soins 4, 4 jours sur, par semaine. Euh, grâce à notre mobilisation également, nous, avons, sommes parvenus à mettre la pression sur le gouvernement nigérien. Sans doute raison pour laquelle ce père de famille s'appuie sur ce concept écrire pour les droits humains pour voir un jour la pour que Amnesty puisse porter un coup de puce. Puisque je suis un homme sans force. Parce que si j'avais une force telle, alors je l'ai usée pour depuis longtemps. Mais je veux que ma force soit légale. Abdoulaye Wad Twingu, mort en détention en 2010, Fred et Yves de la République démocratique du Congo, Walid Abou Al-Khaïr, avocat spécialiste des droits humains, victimes eux aussi de leurs opinions, à en croire le rapport annuel 2014 d'Amnesty International, près de trois quarts des États, 119 sur les 160 couverts, restreindraient la liberté d'expression, et ce, de façon arbitraire. L'administration pénitentiaire a un nouveau patron, c'est le lieutenant-colonel Daoud Diop de la gendarmerie. Il remplace à ce poste cher Amadou Tidjane euh, Diallo. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Suite aux divergences qui secouent l'Union démocratique des enseignants, la secrétaire générale de la structure joue la carte de l'apaisement. Awawad rejette toutefois les accusations de ses camarades dissidents qui lui reprochent une gestion euh, solitaire et un tripatouillage des textes de l'UDEN. Le bureau exécutif national du dit syndicat faisait face à la presse ce euh, mercredi. Euh, correspondance euh, Cheikh Diop, Tout de rouge vêtu, les blouses blanches désertent les postes de santé et se retrouvent au district sanitaire de Pour un sit ils protestent accusé par certains de ses camarades d'une gestion solitaire et de tripatouillage des textes de l'UDN, Awawad nie en bloc des allégations fallacieuses pour le secrétaire général du syndicat. Les camarades se trompent. La majorité de la CA a rejeté l'idée de congrès extraordinaire pour débarquer l'AG. Je crois que c'est un argument fallacieux. Dire à quelqu'un, vous faites une gestion solitaire, donc nous allons aller à un congrès extraordinaire, je crois que c'est cousu Bon, il va falloir retourner et leur demander quelles sont euh, euh les raisons qui disent que la gestion, euh, qui justifient cette gestion solitaire. Je n'ai pas déposé de texte au niveau du ministère de l'Intérieur. Par contre, j'ai déposé des textes à la banque. Après avoir travaillé euh, au niveau du secrétariat. Ses camarades dissidents se disent déterminés à la destituer de son poste, faute de quoi, disent-ils, ils mettront sur pied un autre syndicat. Une démarche regrettable pour Awawad qui joue la carte de l'apaisement. Une seule personne qui quitte le syndicat fragilise le syndicat. Mais euh, je crois que les camarades sont assez déterminés quand même pour continuer le travail puisque l'UDEN est venu de loin. Nous leur tendons la main et leur demandons de travailler pour le triomphe de notre syndicat. Nous leur demandons d'attendre le prochain congrès pour briguer le suffrage des enseignants s'il le veut. L'UDEN dépassera-t-elle les remous notés en son sein Difficile d'y répondre pour le moment, mais une chose est sûre, la structure risque de se fragiliser si jamais les dissidents créent une structure parallèle. Ibrahim Khan, des effectifs de 80 élèves dans les salles de classe, une décision du ministère de l'Éducation nationale selon le CEMS QCEMS euh, e au lycée de Wakam et au lycée Ngalandou Diouf. Les professeurs rencontrés estiment qu'il est impossible d'avoir un enseignement de qualité avec un tel effectif. Ils souhaitent d'ailleurs de salles dans les écoles. C'est un reportage signé euh, Fatidien Entre tableaux et craies, il vit sa passion pour et la géographie. Ce matin, M. Diao dispense un cours sur tremblement de terre. La concentration est de mise, l'ambiance conviviale. La salle est aérée avec un effectif de moins de 40 élèves. Sur euh, donc, la liste euh, nominative de la classe, je crois qu'il y a 37 élèves. Donc euh, actuellement, c'est 37 élèves qui sont inscrits. Euh, l'effectif n'est pas pléthorique, Et je pense que c'est les conditions normales et même les conditions optimales pour euh, bien dérouler ces enseignements-apprentissages. Euh, on est confronté à des, à des effectifs assez plus ou moins élevés, de Wakam, hein, on touche du bois. En fait, euh, nous effectifs tournent de 30, ça aussi entre 30 et 50. La constitution des classes avec des effectifs de la CI à la terminale Une décision du ministre de l'Éducation nationale selon le SAEMS-CUSEMS, une nouvelle pas du tout appréciée par ce professeur d'histoire et de géographie. 80 élèves euh, dans ces les classes où 80 élèves seront possibles, euh, donc euh, on ne de salle de classe, mais on parlerait euh, dans une classe de 80 élèves, alors qu'on veut avoir qualité dans nos enseignements apprentissage, je pense personnellement que ce n'est décision. Si déjà dans euh, une classe, vous parvenez à avoir un effectif de 80, et là les élèves sont obligés de se mettre par 4 ou de qualité, ça c'est pas de plus en plus jeunes, euh, les élèves étant ce qu'ils ont, à gérer des enfants au nombre de 80 dans une salle, n'est-ce hein, pas C'est pas facile du tout. Déjà ici, nous, en, avec 50 élèves, c'est un peu difficile à gérer parce que tout le temps il y a des petits problèmes, etc. Mais je pense que 80 quand même, c'est un peu difficile à gérer. Dans sa carrière de près de deux décennies, l'actuel censeur du lycée de Wakam n'a jamais eu de classe avec un effectif de plus de 60 élèves. J'ai fait 17 ans dans les, dans les salles. Hein. J'ai eu à, gérer des classes qui des effectifs de 60. Hein. J'ai des 60. Et dans le secondaire, des terminales qui allaient jusqu'à 60, mais on arrive à gérer ces, ces, ces, ces actifs. Les professeurs rencontrés proposent plus de salles de classe et des mesures d'accompagnement pour un enseignement de qualité au Sénégal. Sitting des agents de santé de Thiès, les infirmiers, chefs de poste et agents de santé sont sortis en masse ce mercredi pour protester contre les coupures d'électricité au niveau de tous les postes de santé euh, du département de Thiès. Ils s'insurgent contre les autorités sur le retard de paiement des indemnités et heures supplémentaires. Correspondance chez Diop, c'est Tout de rouge vêtu, les blouses blanches désertent les postes de santé et se retrouvent au district sanitaire de Thiès. Pour un sit-in, ils protestent contre les coupures d'électricité opérées dans plusieurs postes de santé de Thiès. Les charges d'électricité et d'eau ne peuvent pas être réglées par les structures sanitaires. Ça au moins c'est une vérité. Si nécessairement il faut payer, c'est l'État qui paye qui doit continuer à payer. Sinon, il ne peut pas y avoir de travail dans les structures. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les structures sont lourdement dépendantes de l'électricité et de l'eau. S'il n'y a pas d'électricité et de l'eau et d'eau, il ne peut pas y avoir de travail. Ces agents de santé très remontés contre les autorités ont également posé sur la table la doléance liée au paiement des indemnités et heures supplémentaires. de ces pièces ne sont jamais payées à temps, ou bien ne sont pas payées. on nous renvoie à des, à à l'année suivante ou bien à des parfois même c'est complètement sectionné qu'il nous reste que des miettes au niveau du district de Thiès. Les motivations étatiques, on n'en parle même pas. Ça, ça devait être payé au bout de trois mois. Parfois, ça fait quatre mois, cinq mois pour qu'on puisse les, les, recevoir. Ils se disent préoccupés par cette situation qui, si rien n'est fait, risque de paralyser le système sanitaire à Thiès. Du sport pour terminer, Cannes U23, Nigeria, Algérie, c'est l'affiche de la finale. Les Nigérians ont le Sénégal en but à 0 ce mercredi au stade Léopold Sédar Senghor. Dans l'autre demi-finale, l'Algérie s'est défait du Sud de buts à 0. Le Nigeria et l'Algérie euh, donc sont qualifiés pour les JO 2016 de Rio. Il faudra attendre la petite finale euh, pour connaître qui Sénégal ou de l'Afrique du Sud accompagnera deux finalistes au Brésil. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof. Merci Fatima, c'était le premier journal de ce jeudi matin. Des infos qui vous ont été présentées sous forme de bulletin. La rédaction que l'on retrouve à 8 heures, ce sera pour un autre journal qui vous sera présenté en wolof. mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di euh, euh, télévision Futur Média 7h27 mooy doog a jot journal bu njëkk bi français la woon ñu àndoon ceeg euh, Fatima Ba Diakhaté li ñuy def rek mooy jàll ci xibaaru ji bi euh, seddaay bi euh, daanaka dafay euh, tegu naam sax am na ay coppite yu bëri yoo xamante ne am na ci wàllu climat loolee li ko indi nee ñu ñun la doomu aadama yi nekk ci àddina loolu moo waral sax ab daje amoon boobu nag ba tey ca France ñu tuddee ko COP 21 daje boobu nag tey lañuy ñuy mujjal seen waxtaan liggéey bi suba la ñu koy jeexal ci dëkk bu ñu naan Paris fii ci Sénégal nag kenn demu ñu des parce que ñun itam boobu tey ñu ngi gën yeewu ci naka la ñuy pour éviter li tubaab tuddee érosion côtière réchauffement climatique euh, moytu ba nga xam ne ni bu ñu tollatee seddaay dina sedd bu ñu tollatee nawet dina taw waaye gis ngeen ni coppite yi dem na ba euh, euh, yenn saa yi sax nga foog nii nawet nga nekk fekk yaa ngi ci jamono boo xamee ni ci yoon jamonoy seddaay la ñu jàll ci xibaaru jaww joojule Fatima tey jii tamit yeewu nañu ak ay température yu yemamaay quand yu yamamaay Pape Cheikh température yi wàññeeku daanaka fépp ci réew mi rawatina ci bët saalum euh, réew mi foofule euh, fa la ñuy am température yi gën a tuuti ci euh, suba teel gi muy 18 degré bi gën a mag 24 degré fii ci Dakar lay doon Saint-Louis moom boo fa demee dinañ yeewoo ko 22 degré Podor 21 degré Matam 22 degré Podor 21 Linguère 21 degré itam Diourbel ak Kaolack ak Tambacounda 20 degré la ñuy am Ziguinchor 19 degré. degré euh, Kolda ak euh, Kédougou ni ma ko waxee 18 degré di température bi gën a tuuti ci suba teel gi bu ñu demee ba ci ngoon nag yooyu la dina ñu yéeg ba yegg si 38 degré di température bi gën a mag fa ca Matam lay doon bi gën a tuuti 29 euh, degré fii ci Dakar lay doon Saint-Louis 34 degré lay am Podor 37 degré Linguère 37 degré itam Diourbel 35 degré Kaolack Tambacounda 34 degré Ziguinchor 33 degré Kolda 34 degré Kédougou 32 euh, degré ñu wax ci euh, marée yi géej gi nag dina yéeg bu ci kaname tuuti 8h10 euh, yéegaat itam bu 20h tegalee fanweeri simili ak juróom géej gi wàccoon na ci guddi dina wàccaat 14h10 minutes ñu wax ci ni nga xamante ne ñoom ñooy wuti jën ci géej jàppale ni moment yu gën a am solo ci bëccëgu tey gi mu ngi toll ci diggante 6 h cinq jàpp 8 h cinq moment bi may wax ak yéen bu demee ba ci ngoon 18h12 jàpp 20h12 dina doon moment bu am solo ci ñi wuti jën jant bi moom fenk na ay euh, simili daanaka euh, yu néew rek mi ngi nii 7h24 ñu ngi yaakaar itam mu soo bu juróom benn waxtu euh, ci ngoon demee ba tegal la ñeent fukki simili ak benn Pape Cheikh lii mooy li gën a fës ci ñu ciy gërëm waa waa météo ñoom ñi nga xam ne baaxee xibaar yooyu la jëm ci wàllu jaww ji ñu jàll ci yéen kaay yéenekaay yeeg seen i xët euh, tey jeudi 10 décembre lan ngeen fa yéene liir ak yéenekaay yi l'observateur la ñu koy njëkkee xëyee na tey ak coowal koppar euh, lu am ca ASECNA euh, loole nag tax na mu ne fi mu toll tembe 17 milliards de francs CFA cfa polulaire à la l'ASECNA 17 euh, milliards yoo xamante ne Pape Cheikh jamono ji ñu ngay euh, laaj rek ana fan la euh, dugg mu soxal nag agence bi di ASECNAM nga xamante ne moom moo yor kaaraange lépp lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci géej gi ak ci jaww ji mu ne foofee nag lu tollu daal ci 17 milliards moom moom moo fa indi coow ndax ay radar yoo xamante ne jëndoon nañ ko nee na radar yooyu nag fukk ak benn la ñu woon waaye bi ñu ko jëndee ba léegi ci atum 2011 ba léegi daanaka juróom-ñaar képp moom la ñu gisagum li ci des gisagum. guñ ko fenn ba tax na daal euh, yéenekaay bi euh, di ci def ab gëstu samp ab laaj ngir xam milliards yooyu de fu mu dugg. yéen kaay yi am na ñu xëyaat tey ci mbir ma amoon ca cimetière ya ca euh, Pikine ki nga xamee ni euh, moom moo indi euh, mbir yooyu lee ñu ngi koy inculpé turam fees na tey ci yéen yu bëri le populaire par exemple moom la xëyee Sayer Ñing inculpé pour sorcellerie violation de sépulture loolee ñu ngi koy liir ci xëtu yéen kaay bi ba ci grand place xëyee tey ki nga xamee ni moom la ñu teg loxo ñu tuddee ko ci français fossoyeur bi moom fi mu toll tembe ma nga ca ca rëbës mu fanaan na fa guddeem bu njëkk moom sa Sayer ñing moomu lee ndax moom moo doon gas bàmmeel yooyu lee fële ca euh, Pikine waaye nag ba tey ñu ne enquête bi euh, mu ngi wéy ñu ngi koy déglu itam waaye daal nangut euh, yëy yàb bi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yebal wala boog ñoom ñoo ko fay koppar ba mu def li ni mel lu ci mënti am moom l'enquête bi mu ngi wéy te moom teg nañ ko loxo ba mu fanaan guddeem bu njëkk ca rëbës quotidien xëy na tey ak li de tuddee gestion des infrastructures euh, routières euh, ñu ngi ñuy xamal ci xëtu yéenekaay bi ni euh, FONSIS fi mu ne nii moo jël autoroute à péage bi. autoroute à péage aju ci yoruñu infrastructure yi fii ci Sénégal loole ci la yéenekaay bi di quotidien xëy tey xamal ni autoroute à péage jamono ji mu ngi ci loxol FONSIS loole nag soxal dem bekk dikk bi fii ci Ndakaaru Pape Cheikh. bi di l'observateur mën nañ cee ñëwaat ak euh, FMI mi nga xam ni moo plébiscité Sénégal euh, jëm ci euh, place am ci programme économique et financier loolee mu ngi ci xëtu l'observateur bi waaye Libération itam loolu la xëyee ñoo ngi liir ni FMI plébiscite le Sénégal programme boobu nag ñoo ngi ko tuddee programme économique de Macky approuvé sans débat. approuvé sans débat moom président Macky Sall doon rek euh, waxtaan ak FMI euh, lu soxal ci euh, bile rapport mu ne nag FMI déglu na ko te it nangu na ko gunge ci bile programme ndax jàpp nañ ne ab programme la boo xamante ne buñ ci taxawee mën naa indi ab yokkute ci biir réew mi Macky Sall waxtaan ceeg FMI ñu nangu ko gunge ci bile programme ci ay koppar yoo xamante ne nguur Sénégal dina ci jot ngir mën koo jëmmal. ba tey dañuy desandi ci wàllu ko ak président Macky Sall yéenekaay bi di réew mi moom la xëyee tey ak ARMP ak rapport 2014 am am euh, nekk ci viseur président loolee yéenekaay bi di réew mi moo ñu ko xamal ci xëtam bu njëkk. Mhm, joxoñ nañ leen baaraamu tuuma ba noppi yenn ci ay ministères yoo xamante ne ARMP di kuréel bi saytu ni ñuy joxe marché yi fii ci Sénégal moom moo leen épinglé ndax ay njuuj njaaj yoo xamante jàpp nañ ni am ni ci yooyu les euh, ñu ne nag président Macky Sall xam na. ministère yooyu de te boo moyul ñi ko jiitee euh, dinañu tekki seen ndomb tànk wala bokk leneen daal mën na leen ci fekk lu ci mën ci am président Macky Sall euh, mu ngi bàyyi xel bu baax a baax ci rapport bu ARMP. ba tey ci mbir yooyu dañ ciy desandi ak gestion wu Transrail euh, mu ngi bëgg yàgg bi ñu koy waxtaan ak léegi tur bi ngeen ci gën a dégg nag moo di Ali Jaber yéenekaay bii di laas moom la xëyeeg nataalam tey jii ci xëtam ñu ngi liir ci français mu naan Jaber éjecté. éjecté euh, moom Abbas Jaber ginnaaw bi ñu ko euh, jëlee euh, fële nga xamante ne moom moo di Sinéor léegi Transrail la ñuy fexe ba dikk ci jafe-jafe yi nga xamante ne kër googu leen mi ngi koy jànkonteel yéenekaay yaa ngi yuuxu xawma liggéeykat yi ñu ngi faral di yuuxu di wax rek ci jafe yi nga xamante ne moom moo fa am lu ci mun mënti am yéenekaay bi di laas ne yàggatul dara moom Jaber dina leen abal ba kër googu leen mën a génn ci yile jafe-jafe. voilà damay corriger sama bopp xam naa ne Jaber yee tombé rek waaye Ali bokkul ak Abbas Abbas Jaber moom la ñu waxtaanee ci yéen kaay boobule waaye Ali Jaber xam naa ni euh, ñiy yëngu ci wàllu musique sama classe gi dañu ko miin moo tax ma xaw a juum waaye tur yi bokkul Jaber yee tombé rek voilà Ali Jaber la ak Abbas Jaber mais euh, euh, Jaber bi ñu waxtaanee ci coow loolu jëm ci toppatoo kook Transrail ak ni ñu ko éjecté moom mu ngi wuyoo turu Abbas Jaber merci Fatima Ba Diakhaté ñu waxaat ci beneen mbir boo xamee ni ñu ngi koy gis ci xëtu yéen kaay yi direct info xëy na tey ak nataalu président Macky Sall président Abdoulaye Wade ci digg digg bi ñu def ci Matassi euh, Diallo moom nag ay accusation ay tuuma euh, la teg ci ndoddu Wade ak Macky euh, loolu tax na nag ba yéenekaay bi di direct info di ñu xamal ni fi mu toll tembe parquet bi dañu ko interpellé. dañ ko interpellé ci mbir moom mu lee ndax Matassi Diallo am na ay kàddu yoo xamante ne da ko yëkkati jëmale ko ci ki fi nekkoon jiitu réew bu Sénégal di Abdoulaye Wade waaye itam ki fi ne jamono ji di Macky Sall ay kàddu la nag yoo xamante ni moom Matassi Diallo ñu ne dina ci indi tax na yóbbu nañ ko ci yoon léegi kay li des mooy ñu xaar ba xam fu wànnante di muccee ki gëtam ñu waxati ci beneen mbir boo xamee ni euh, ñu ngi koy gis ci xëtu yéenekaay bi di euh, enquête jëm ci muraay ba daj ak ni ñu ko teree Sénégal am na ci kilifa goo xamee ni ay kàddoom fees na lool moom nag ay révélation yu doy waar la euh, fésal enquête moom la xëyee tey ci xëtam. ay révélation yu doy waar imam Kouta moom euh, yéenekaay bi di enquête dafa sekk ak moom waxtaan ci euh, colinu burka fii ci Sénégal lim ci xamle nag euh, Pape Cheikh doon na mbir yu doy waar nee na ndax am na nee ay soxna yoo xamante ne dañ leen di fay 60 000 francs par jour ngir ñuy sol burka boobule ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne waxtaane na ko ak yéenekaay bi di l'enquête muy ay kadd yoo xamante ni duñ ci sori dañ leen di bàyyi rek ngeen liral ko seen bopp mën ngeen ko gis tey ci xëtu yéenekaay bi di enquête beneen yéenekaay gi di zoom Euh, tey xëy na ak euh, menace sukk euh, way juru ndongo yi nga xame ni danoo afoon defe naa tëx tëxlaam déet mm-hmm. xeetu feebar yooyu le rek ñoom nag nee ñu ñu ngi menacé ci atub ren bi ci wàllu njàng meeg njàngale mi ci wàllu njàng meeg njàngale mi ndax Pape Cheikh jafe-jafe door na ci xaat gis ñu jàngalekat yi ne nangu ñu circulaire bi nga xamante ne jawriñ bi ñu dénk wàllu njàng mi moo ko joxee ne classe yi dina am lu mu gàtt gàtt 80 élèves loole nag ñu ne ba tey daanaka dégguñu ci way juru ndongo yi di parents d'élèves yi moo ne euh, seen kàddu am na ci solo lool ñu ne nag ay menaces moom am na ci année scolaire ren bi ñu jeexal ak yéenekaay bii di stade ci wàllu tàggat yaram démb dañoo mujj découragé match bi amoon ci diggante euh, suñu gaynde yi ak Nigéria jëm ci CAN u euh, fi mu tollu tembe nag xam ngeen résultat bi 0-1 la Sénégal 0 Nigéria 1 loolu nag moo tax ci xëtu stade ñu ngi ci lii le titre s'envole Rio si près si loin et pourtant démb avant match bi ci fajar gi ñu ngi ñuy wax ni jege nañu Rio mm-hmm. ni malheureusement euh, sori nañu ko lool euh, démb nag match bi ma nga amoon euh, bi trois heures jotee. bi 3 heures jotee Pape Cheikh le titre s'envole ndax jamono ji moom Sénégal mënatu cee euh, jot ndax bokkatul ci compétition bi nigeria moom moo ko éliminé ni ki démb Nigéria moomule mooy dajeek final Algérie waaye final bu ndaw bi ni ñu koy waxee dina am euh, gaynde yi dinañ ci dajeek Afrique du Sud te boo fàttalikoo dooroon nañu Afrique du Sud ci match d'ouverture 3 buts à 1 euh, waaye nag Rio si près si loin Pape ndax bu ñu dooree Afrique du Sud dinañu dem ca Rio. voilà mu ngoog loolu yéene kaay yi la ak seen i xët ca kanam Mamadou Mouhamed Ndiaye dina ko gën a yaatal dina ko gën a xóotal ci revue de presse bi lay doon Fatima laata ngay dem euh, sànq bi ñuy door ñu ngi koy expliquer di ko waxtaane tey 10 décembre euh, mooy euh, bis bi ñu jagleel droit de l'homme tombé itam ak déclaration universelle des droits de l'homme defe naa ñun ñu bëri jàpp nañu phrase bi tous les hommes naissent égaux loolu naissent libres et égaux defe naa loolu xam nañu ko d'ailleurs di nga ci ñëwaat ci kanam mais ñun am nañu bilan bu ndaw boo xamante ni dañu ko bëgg a tegal yi pour ñu gën a mën a comprendre solo bis bi donc décembre dañu koy célébrer ngir mu màggal euh, ak ak yelleefu doomu doomu aadama Pape am na solo lool ñu ngi ko door ci ba léegi euh, le décembre di bésub euh, tey bi ak yelleefu doomu aadama ni nga ko waxee ndax ñëpp ñoom ñoo yem boog dañ leen war a teg ci seen place waaye itam wax surtout ci bañ a salfaañe ak ak yelleefu nit gis nga rencontre. rencontre bi nga xamante ne Amnesty amal nañ ko ndax mhm. seetlu nañu ne euh, surtout ci prison yi am na ñoo xamante ne seen nekkin léeg-léeg day xaw a doy waar am na mhm. ñoo xamante ne tamit dañuy ñàkk seen bakkan ci anam itam yu doy waar ci biir kaso yooyu mhm. suivi du ci am pour la plupart parce que duñu xam exactement lan moo leen rey dañuy joxe ay autopsie ak lu bëri mais am na daal lu bëri loo xamante ne day dese leer ci bopp askan wi ñii dañuy jàpp ne dañ leen di euh, maltraité peut-être ci biir kaso yi ñii jàpp ne dañ leen di def en tout cas naka mujjee euh, ñàkk seen bakkan mais lu loo xamante ne na lu jara taxaw seetlu la mhm. parce que ni nga ko waxee ñëpp ñoo yem euh, ci kanamu yàlla ñëpp ñoo yem itam ci yoon mhm. donc loolu dañ ko war a euh, jëfee képp koo xamante ne salfaañee nga ak ak yelleefu doomi aadama bu jaree ñu teg ay daan sa kaw ñu teg ko te ñu bañ ci am xaj ak seen daan voilà amul buur amul baadoola amul débusekat amul docteur amul président amul sapeur pompier amul animateur ñëpp a yem loolee bokk na ci ay combat taxoon ñu xaatim loolee ñu tuddee déclaration universelle des droits de l'homme euh, on va vous proposer tout de suite un document euh, ce document euh, m'a permis moi de mieux comprendre cette journée du du 10 décembre regardez juste après on vous explique puisque c'est un document assez long quand même et réalisé en français on se retrouve juste après pour des explications regardez human rights is, um, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. Um, I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, uh, human, any. The rights that humans have. Ah. Oh, that's a very large debate. Tienes que saber que es un mindset. Tú le puedes eh, preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes op opinioni. Non saprei, è una domanda complicatissima. Difficilissima. Because we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Les droits de l'homme sont les droits que vous avez du simple fait d'être humain. c'est la façon dont vous pouvez instinctivement vous attendre à être traité et les droits que vous méritez en tant que personne, tels que le droit de vivre librement, de donner votre opinion et d'être traité en tant qu'égal. Il existe toutes sortes de droits. La plupart s'appliquent à un certain groupe. Mais seuls les droits de l'homme s'appliquent absolument à tous et partout. c'est-à-dire aux enfants, personnes âgées, pauvres, basketteurs, éboueurs, rappeurs, enseignants, africains, indiens, albanais, chrétiens, musulmans, juifs, athées, votre mère, votre père et votre voisin de palier, et vous-même. Tous ont les mêmes droits. En d'autres mots, ils sont universels. Mais la question est de savoir, que sont-ils the human rights? are? Um, the right to live. um, equality between all peoples. Right to religion, I should be aware of? D'après les Nations Unies, on en compte Ils sont le plus souvent présentés en bloc sous la dénomination les droits de l'homme. Ils figurent tous dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle est le document international de référence sur le sujet. Mais cette déclaration s'est faite beaucoup attendre. À l'origine, les droits de l'homme n'existaient pas. Au sein d'un bon groupe, vous étiez en sécurité. Sans un tel groupe, vous ne l'étiez pas. Mais c'est alors qu'un gars du nom de Cyrus le Grand innova. Après avoir conquis la ville de Babylone, il déclara quelque chose de totalement révolutionnaire, que tous les esclaves étaient libres de rentrer chez eux. Il a aussi annoncé que les gens pouvaient être libres de choisir leur propre religion, quel que soit le milieu d'où ils venaient. Ces paroles furent en C'est ainsi que naquirent les droits de l'homme. L'idée s'est vite propagée, en Grèce, en Inde et finalement à Rome. Ils avaient remarqué que les gens suivaient instinctivement certaines lois. Ils les ont appelées les lois naturelles. Cependant, elles n'étaient pas toujours respectées par ceux qui étaient au pouvoir. Ce n'est que mille ans plus tard, en Angleterre, qu'ils ont finalement amené le roi à accepter que ces droits ne pouvaient pas être supprimés, les droits des gens finirent par être reconnus et respectés par ceux qui étaient au pouvoir. En fait, c'est beaucoup dire. Des Anglais au caractère plutôt radical ont dû déclarer leur indépendance avant que le roi comprenne pour de bon que tous les hommes étaient nés égaux. Non pas qu'il aimait l'idée, mais il ne pouvait pas les arrêter, et ainsi naquit l'Amérique. Les Français leur ont emboîté le pas avec leur propre révolution, leurs propres droits. Ils insistèrent sur le fait que ces droits n'étaient pas juste une invention, mais qu'ils étaient naturels. Le concept romain de loi naturelle était devenu les droits naturels. Malheureusement, tout le monde n'était pas si enthousiaste. En France, un général du nom de Napoléon a renversé la nouvelle démocratie française. Il se couronna lui-même empereur du monde. Et il a failli réussir. Mais la coalition des pays européens a fini par prendre le dessus. Les Des accords internationaux ont été rédigés pour garantir beaucoup de droits en Europe. Mais ça ne se limitait qu'à l'Europe. Ces droits ne semblaient pas légitimes dans d'autres parties du monde qui étaient envahies, conquises et brûlées pour développer les vastes empires de l'Europe. C'est alors qu'un jeune homme de loi de l'Inde décida de protester. Il s'appelait Mahatma Gandhi. Et malgré la violence, il insista pour que tous les peuples de la Terre

C'est ainsi que les nations de la Terre ont formé une alliance, les Nations Unies. Leur but premier était de réaffirmer la confiance dans les droits fondamentaux des hommes, dans la dignité et dans la valeur de la personne humaine. Mais qu'étaient ces droits de l'homme Les proclamations de Cyrus Les lois naturelles de Rome Les déclarations de la France Chacun semblait avoir une idée légèrement différente de ce que les droits de l'homme devraient être. Mais sous la supervision d'Eleanor Roosevelt, tous se sont enfin mis d'accord sur un ensemble de droits pour tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Le concept des droits naturels en France s'est transformé en droits de l'homme. Donc pour résumer, au début, seuls quelques privilégiés avaient des droits. Puis un jour, un gars s'est dit que d'autres devraient en avoir aussi, ce qui était génial. Sauf tout le monde n'était pas d'accord. Et c'est au prix de luttes et de guerres au cours de plusieurs millénaires que chacun finit par accepter que les droits de l'homme devraient s'appliquer à tous. Depuis lors, les gens ont vécu des jours heureux. Sauf qu'il y a un léger problème. Si les gens ont le droit de se nourrir et d'avoir un abri, comment se fait-il que 16 000 enfants meurent de faim chaque jour Un toutes les 5 secondes. Si les gens ont droit à Comment se fait-il que beaucoup soient en prison à cause de leurs opinions Si les gens ont droit à l'éducation, comment se fait-il que plus d'un milliard d'adultes ne sachent pas lire Si l'esclavage a été effectivement aboli, comment se fait-il qu'il existe encore 27 millions d'esclaves aujourd'hui Plus du double qu'en Le fait est que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'avait pas pouvoir de loi lorsqu'elle a été signée. C'était Et en dépit de bon nombre de documents, de conventions, de traités et de lois, ce n'est guère plus que des mots sur une page. La question est de savoir qui va faire de ces mots une réalité. Quand Martin Luther King protestait pour l'égalité des races, il le faisait pour des droits garantis par les Nations Unies depuis deux décennies. Et pourtant, il a dû protester Quand Nelson Mandela défendait la justice sociale dans les années 90, son pays avait déjà accepté 40 ans plus tôt d'abolir la discrimination raciale. Et pourtant, il a dû combattre. Ceux qui luttent de nos jours contre la torture, la pauvreté, la discrimination, ne sont pas des géants ou des super-héros. Ce sont des gens, enfants, mères, pères, enseignants, des individus libres de pensée qui refusent de se taire, qui se rendent compte que les droits de l'homme ne sont pas une leçon d'histoire, ni des mots sur une page, ni des discours, ni des campagnes publicitaires ou commerciales. Ils sont les choix que vous faites chaque jour en tant qu'être humain. Ils sont la part de responsabilité que nous partageons tous, se respecter mutuellement, s'entraider et protéger ceux qui sont dans le besoin. Comme Eleanor l'a dit, Où est-ce que les droits universels de l'homme commencent Dans des endroits tout près de chez vous. Si près et si petits qu'on ne peut même pas les voir sur une carte. Et pourtant, ces endroits représentent le monde d'un individu, le quartier dans lequel il vit, son école ou son université, l'usine, la ferme ou le bureau. Ce sont des endroits où chaque homme, femmes ou enfants aspirent à une justice équitable, des chances équitables, une dignité équitable sans discrimination. C'est dans la mesure où ces droits seront vrais, près de chez soi, qu'ils pourront l'être partout ailleurs. Voilà, en tout cas, nous, ça nous a permis hier de mieux comprendre l'histoire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document donc qui raconte cette histoire. Aujourd'hui, décembre, est célébrée la Journée mondiale des droits de l'homme euh, qui marque cette déclaration ou ces déclarations. On va tenter d'expliquer un tout petit peu en wolof puisque ce document a fait pratiquement le tour euh, de tout ce qui s'est passé euh, lors de ces signatures, de cette naissance euh, que tout le monde retient depuis très longtemps, euh, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. D'ailleurs, tout le monde en parle. Dëkk boo dem euh, am na euh, ñoo xamante ni dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal à chaque fois ñu am ay ñaawteef ñi ngeen di njëkk a ñuy wax mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu euh, àq ak fu doomu aadama on est tous là ce matin pour vous accompagner on va juste def ci quelques commentaires Bijou Mado ak Alfi en attendant que El Hadj Modou Mbaye Garmi di yegg bi ñi nga ca ginnaaw ñoom itam euh, di euh, préparé wu donc tey 10 décembre defe naa date la boo xamee ñi dafa historique parce que déclaration universelle des droits de l'homme euh, ñun ñëpp jàng nañu ko ci sa vie yëpp dañ lay wax que am nga ay droits yoo xam ne ah. ñëpp dañ ko war a respecter. Mm-hmm. et pourtant depuis bi ñu voté droit de l'homme ba léegi on a vu que dans le monde dañ koy bafouer tout le temps tout le temps il mm, y a très peu de pays wala très peu de gens yoo xam ne dañ koy respecter am na ñoo xamante ne xamuñu ni sax am nañu droit yooyu donc ñoom ils vivent juste comme ça lu ñu leen teg ñu tegoo ko mm-hmm. euh, à côté am na ñuy manifester am na ñuy def ay marches am na ñuy def euh, lu nekk pour nit ñi bañ bañ bafouer droit nit yi mm-hmm. mais je pense que à l'école à bas nañ ko jàngal xale yi pour non seulement ñu xam seen droit mais aussi ñu respecter le droit des autres. alors ñun fii Sénégal peut-être on a de la chance naam sax yenn saa yi nga gis ay xoxotal yoo xamante ni ay ñàkk respect euh, euh, droit de l'homme la mais heureusement ba métti wu fi noonu mais bëri ay dëkk yoo xamante ni boo fa demee euh, ña fa dëkkee dañuy sonn sonn boo xam ni ndax mm-hmm. respecté wuñu fa droit de l'homme effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek donc jot na nit yi bàyyi ci xalaat bu baax nag jéeg euh, ni ñu koy waxee ci olof rek ak ak yelleefu doomu aadama parce que dafa nekk lu am solo te comme ni ñu ko doon waxee sànq tamit delluwaat tuuti ci wàllu kaso yi parce que léeg tamit dina fa am yenn yoo mm. xamante ni mm-hmm. nit yi dañ koy jànkoonteel mu metti loolu kon nag jot na nit yi yeewu ba pare nag jël li nga xamante ne ku ci nekk yaa ko moom ak li nga xamante ne borom moo ko moom nga bàyyee ko ko. voilà teewul nga jël li nga moom le droit de <laughs> la nit boo xamee say droit da ngay am fit mhm. maanaam bu bu la leeree ni yow li ngay def am nga ci droit maanaam xam nga say àq say yelleef foo dem da am fit da ngay oser affronter te am na ñoo xamante ne bu ñuy waaw ba nga xam am na ñoo xam ne yenn dëkk yi ñu nekk dañuy ruus dañuy sëgg mhm. te nit defe naa am toll nañ léegi jamono joo xamante nit waratul am na dëkk yoo xamante ni waxtaan ci ko am na dëkk yoo xamante ni tudd seen président am na ñoo xam ne duñu génn sax di dox ci mbedd mi baali sax mënuñu ko am na seen diine sax mënuñu koo pratiquer am na accéder à Google yu amul internet t'as pas Skype tout ça ah oui ah oui Chine ah t'as pas Skype t'as pas Google rien du tout danga koy craquer sinon les informations c'est les informations qu'ils veulent bien te donner ngay am mais à mon droit xool li xew ci monde bi ak li la entouré ak lan la ñu xalaat ci sa dëkk. zéro liberté ah, zéro liberté donc ñun Sénégal c' est pour ça que je dis war yàlla même si. Mm-hmm. Mm-hmm. am na ay détails yu ndaw yoo xamante ni. des na euh, tuuti mm-hmm. mais war nañu euh, quand même sant yàlla et puis gën a yokkaat euh, suñu ay suñu respect suñu diggante. Ah, gën a am liberté di gën a gëstu chaque jour xam lu c'est pour ça que yeewu leen. yeewu leen yeewu du nelaw ci ay yeewu rek ah. yeewu leen yeewu ci xel

Euh, dañuy dem euh, euh, seeti ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci bépp xeetu arts martiaux muy taekwondo karaté judo tey nag dañ leen di indil quelques exercices yoo xamante ni mu ngi jëm ci art bi ñu tuddee Apkido alors kido pour ñu ko musta pratiquer regarder peut-être que bu leen intéressé di ngeen mën a dem ci saalu ki nga xam ne ni moom moo ñu fekk si tey ci plateau bi on le retrouve tout de suite ci jardin yu yeewu leen tur ak sa sant euh, man maay Babacar Ndoye première dame Afido euh, di diriger salle bi nekk euh, John Fitzgerald Kennedy ñu koy woowee Afido Colobane Club. tey dañ ñëwoon pour di wane Afido yenn ci ay phase am rek combinaison coup de poing coup de pied ak self bi parce que dafa bëri ay phase quoi temps bi duñu ko may léegi li ci gën fës daal la ñuy wane comme self défense ci mbedd bi coup de ut pieds yi nga xam ni dafa baax yi nga xam ne ñu presque presque ñun rek ñoo ko utiliser comme art kon ñu mën nañu tàmbale ci démonstration bi ci lieu donc pion yi ak go cagi un deux yëpp cagi un deux léegi maintenant direct du gauche un uh. deux crochet du droite uh. un deux uppercut du gauche un uh. deux bon en fait li lañ bëggoon a wane ci point ak coup de pied mais léegi dañu wane combinaison bi parce que dafa bëri ay coup de pied coup de point léegi dañu wane combinaison coup de point coup de pied magie de boobu cumbi yëpp boo gisee mooy am suñuy combat mooy am na lutte am na boxe am na tànk mooy lii mooy combat yi Bargo léegi damay ñëw ci coup coup pied bas yi presque ci pour tànk yi rek la ba âge boo mënti am da koy mën a utilise àndaare caano ki un voilà bi dañuy viser genou bi ak âge boo mën a am di nga mën a yëkk sa tànk ba ci bi te moo gën a efficace parce que ça casse pas dan ci goo cagi un gis nga deux du tum ci at boobu laa cagi un ci routine bi lay cherché deux bëg doo adat mu laa cagi un ba tey routine bi lay cherché deux ñu leen doon wanee ci tuuti rek ci coup bas yi parce que bu bëri ñun ñoo koy utilisé léegi ñu dem un peu ci self défense bi ci lépp nekkee ci mbedd bi ñu jàpp la par surprise ñi nga war a génnee joxe énergie bu bëri wala ngay froisser sa yére wala dara quoi yu efficace la te ñëpp mun nañ ko def ci âge yëpp muy góor muy jigéen parce que Rapido dafa bari ay phase yii yëpp daf ci am soo gisee kii ni muy daanoo nii da ngay yaakaar ne gaañ mais lii maîtrise la parce que dafa am ay chute chute yi mënuñu ko wane parce que temps bi du ko may quoi kii ci ginnaaw lañ koy jàpp ba tey parce que phase yëpp lañ lay wan sooy dox la jàppee ak fu la mënti jàpp jàpp kiddo dañ lay mën a wan ni war nga ci mën a génn sans aucun problème waruloo sonn waruloo waruloo am benn problème nga ba tey kii ñaar loxo yi lañ jàpp. ginnaaw rek ñu jàpp ko gis nga di continuer utiliser utiliser loxo moo ma tey ñu dem ci yenn technique yi comme attaque pousse ak saisie colle en tirant daf lay koñe xëcc la nga bloqué deux daf lay puus laa ah. Euh, laa ak ah! côté bu ñu la mënti ñëwee côté bu ñu mënti ñëwee da nga war a mën a génn sans problème. Ah! dafay daw di sëy sama tànk damay génn carrément fii laa. machine bi la jàpp fii ba tey saisi la da dox nit ki taxaw nit ki jàpp la un là fii sama ginnaaw la jàpp mun naa tourner deux parce que ci moom là bu bëggee génn fii du génn parce que affaire dafa war a àgg ba ci suuf lii mooy aptido ci yenn phase yi ñuy war a démontrer ba tey ci côté boo ñëwee dañ ci war a génn fii day daw song blocage là attention dañ koy gis ci bari ci Sénégal fii un euh, là bu ñu la jàppee war nga ci mën a génn ak âge boo am dafa am rapidité te doo ci def dépenser énergie doo tàq loolu la lay jàngal quoi. lii ba tey tànk la comme ñu tànk def ci am si da ah ndax bu la mën di jàppee. loolu am xalaat naa ne war naa def yow léegi dañ ci war a génn. amul fii dañ may jàpp wala fii fu mu ñëwee dañ ci war a génn tànk loxo moo xam ne mu ñëwee ceinture damay dox ñu jàpp ma sama ginnaaw fii bi gën a gaaw oh. jeex na parce xanaa xanaa lépp self défense la self défense la am na bopp combat am na combat am na lépp mhm. âge bi compté aussi taille bi poids bi d' accord alors euh, c' est sûr que euh, ci euh, temps bu ndaw mënuñu def lépp parce que euh, actuellement gars yi ñu ngi gën di def si euh, ab kido fan lañ la mun a fekk pour ñi nga xamante ni ñooy seetaan te bëgg ko bëgg en fait man maa ngi ko la baat. ci lycée Kennedy. lycée Kennedy ah ok ok est ce qu' y a un de téléphone wala. waaw ah, fu gars yi a inscrire pour quand même yóbbu peut être y' beaucoup d' qui veulent yu ko bëgg yu ko bëgg a. pratiquer bi am na ay xale. am na ay xale yu mais pour ab kido ku ko bëgg. Mhm. da wax zone bi nga nekk rek ñu wax la salle bi nga gën a jege. ah ok donc c'est selon zone bu nga nekk. chaque zone am na am na ay ay salle yu nekk foofu kaa pour def boo wootee. Uh-huh. boo par exemple moo joxee sama numéro contact fii. waaw suñ ma woowee. zone bi nga nekk foofu laa lay wax nga dem. très bien. loolu mooy aar bi quoi amul. kii fii la nekk dafa bëgg a entraîner sama salle non non ku nekk zone bi nga nekk foofu ngay demee entraîner quoi d'accord fan lañ la mën a jotee pour ñi nga xamante ni seen zone bëgg nañ ko waaw man ku ma bëgg a jot da nga may woo 77 301 33 07 merci en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax voilà kontaan nañ ci merci merci loolu euh, mu ngi nekkoon euh, ab kido jëm ci ay exercice yu am solo yoo xamante ni bu ngeen ko bëggee man ngeen ko pratiquer n'hésitez surtout pas appeler euh, notre dina leen wax ci zone bi ngeen nekk ban salle ngeen mën a def pour pratiquer ab kido comme quoi arts martiaux gis ngeen ni ñu ko fonkee fii ci Sénégal muy ab kido muy taekwondo muy judo muy karaté ak yeneen aar yu mu mënti nekk am na place bu baax fii ci Sénégal mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Futurs Médias 8 jot euh, ba tegal ay minutes dañuy ñëw rek bàyyiwaat leen ak Fatima Ba Diakhaté ci jotaayu xibaaru suba gi bu noppee ñu ñëw àggali euh, tey yeewu leen tombé ak 10 décembre bis bi nga xamante ni moom lañ jagleel lépp lu jëm ci wàllu droit de l'homme à tout à l'heure rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias xibaaru juróom-ñetti waxtu yi ñu doore kook bisub euh, tey fukki fan ci weeru décembre ñuy màggal ak ak yelleefu euh, doomi aadama ak euh, loo xamante ne la ñu ngi koy def depuis 1948 bi déclaration universelle des droits de l'homme amee sàmmontek ak ak yelleefu nit ñi xam ne ñëpp ñoo yem ci kanamu yoon waaye itam fexe ba nit ku nekk ñu di respecté yooyu lee ak ak yelleef loolee dinañ ci dikkaat suñ yeneen jotaay xibaar Amnesty International nationale ñoom ci loolu la ñuy dox ba tax na euh, lancé nañu ab campagne boo xamante ne nuñ ko duppee signé pour les droits humains fexe ba sàmmanteeg ak ak yelleefu euh, ñëpp rawatina ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete euh, ginnaaw ndax jàpp nañ ni léeg-léeg daal dañuy faatu ci biir kaso yi te duñu xam dëgg li ko waral wax nañ ci ki nga xamante ne moom moo di Abdoulaye Winguk moom nag ca yëmbal lañ ko tegee woon loxo mu mujj faatu ci loxoy policier yi ba léegi nag njabootam di sàkku yoon yoon def liggéeyam ci mbir moomule ñu teewlu ci Aïssatou Pay Fall Jafaxa Ba ay SMS ay lettres ay fax ay messages yoo xam ne ñu ngi koy def ci réseaux sociaux yi yooyu yëpp nekk ay formes de soutien ñi nga xam ne ñi ngi nasaxal waree fu doomu aadama campagne Amnesty internationale bi ñu duppee ko marathon des lettres di woote ngir liberté ak fin de l'impunité nekk am si dafay jël ay kaa ay nit ñoo xam ne ni euh, dañ leen di noot wala ñu rey leen ci ci ay pays euh, pour taxaw taxaw seen i mbir nekk si euh, fami victime yi nekk seen wet pour wan leen ne liñ nekkee du yoon liñ nekkee ñun ñu ngi si ak ñoom te dinañ mobiliser wu te ñu laaj ak dirigeant àddina yi dirigeant africain ak sénégalais ñu arrêté ñu bàyyi Euh, nit ñi ñuy xoqatal. mu mel ne nag campagne bi mi ngi joxe ay résultats yu baax suñu sukkandikoo ci chargé de campagne bi. am na njëriñ parce que bu ñu xool Sénégal kaw Dominique Lopi toog nañ juróom ñaari at yoo xam ne ñu ngi koy mobiliser pour ñu li tax tey jii nii ñu a ah, dem am jugement ba ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ci taxu ñu tëj leen signature yooyu moo tax ak engagement yooyu noonu bu ñu demee également euh, Nigéria dafa am ay communauté boo xam ne nii euh, ñoom semaine bi lañu doon la hôpital bi doon ubbi donc mobilisation boobu moo tax état bi jël ay mesures pour mu ubbeeku. loolu xanaa moo waral borom kër gi sukkandiku ci concept bi bind ngir wareef ak fu doomu aadama ngir bés dëgg feeñ. dëgg feeñ dëgg laa bëgg parce que man mënuma isolé wu ma dem tase ak nguur gi waxtaan ak ñoom te ànduma ak kenn fi mu ne nii. nee naa fii ñun ñi nga xamante ne mu taxuñu mais amuñu gémmiñ léegi Amnesty International moo ñu mën a waxal. Abdoulaye Wade Wingu nga xam ni dee na ci détention en 2010 Fred ak Yves bu République démocratique bu Congo Walid Abou Ali Khair di avocat bu mag ci droits humains yi. ñoom it bokk ci ñuy loru ci seen ay opinion suñu sukkandiku ci rapport annuel 2014 bu Amnesty International trois quarts nguuru Afrique yi ñoom dañuy nasaxal liberté d'expression te lii yëpp ci façon bu arbitraire Aïssatou Paye Fall administration pénitentiaire am na njiit lu euh, bees lieutenant colonel Daouda Diop la bu gendarmerie moom nag wuutu fa euh, ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Amadou Tidiane euh, Diallo dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jotaay xibaar ñu wax ci ñàkk déggoo gi ñu nemmeeku ci kuréel gi ëmb enseignant yi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci UDEN ñoom nag daanaka seen diggante neexatul ndax ñoom rafetlu wuñu liggéey bi nga xamante ne seen secretaire général di Awa Wade mi ngi koy amal ndax jàpp nañ ne euh, moom buy euh, doxal daal ci biir syndicat bi di leen laaj seen xalaat loolee tax ba ñoom ñu beru euh, sàkku nag ñu xoolaat doxalinu syndicat bi nu mu gën a gaawee bureau bi moom moo doon janook taskatu xibaar yi ci teewaayu Ibrahima Kane Jafara Ba gannaaw bi ko ay naataangoom tuumaale ne day def lu ko neex ci biir UDEN rax ci dolli di jalgati texte yi Awa Wade na lu ni mel moom jàpp na ne kàddu yooyu dëppawul benn yoon ak li am. camarades yi dañu juum li ñu wax demeewul noonu. te ñun ñu ngi jàkkaarloog 291 délégué à la SAE yi ñëwoon xam nañ ni SAE bi wax dëgg yàlla majoritairement dañu rejeté congrès extraordinaire ni mënuñu jógee 7 mois congrès ni dañuy wax waxu congrès extraordinaire fi ñu toll. wax nañu aussi gestion solitaire kooku dama dégg rek presse bi di ko wax. waaye bëggoon naa ñu jox ma ay firnde ci yan élément la. naataangoom yooyee nag li leen soxal jamono ji mooy dindi ko ci poste secrétaire général bu UDEN nee nañ lu ko may dinañu créer beneen syndicat mu di doxalin boo xamante ne nag Awa Wade rafetluwu ko ba tax na muy dalal xel yi. ñu ngi di tàllal loxo di leen wax ni nañu ñëw ci seen kër fii la ñu xam ñu nit ñoom lañu xam amour bi ñu amoon ci ñoom lañu am ba léegi ndax ñun ñoo yilif ñëpp ñoo ñoo ñoo boot ñëpp. bëgguñu ñu dem ñun. mais nag affaire syndicale démocratie la suñ leen waxee te kii ñu it mënuñu leen forcer jël yat ni leen tey ngeen ñëw mais li ñu doon gënal daal mooy ñu ñëw. UDN ndax dina génn ci coow li tontu ci jafe na fi mu toll wante li ñu mën a jàpp mooy bés bu ñooñee créer nag ab structure parallèle UDN du ñàkk ne dooleem dina wàññeeku bu baax ci biir syndical. Ibrahima Kane ci wàllu njàng meek njàngale mi la ñuy des wax ci dogal bi nga xamante ne ministère bi ñu dénk wàllu woowee moom moo ko jël ne classe yi lu mu gàtt gàtt dina def juróom-ñetti fukki ndongo loole nag professeur yu ñu dajal ca lycée yu Wakaam ak bu Ngalandu Diouf rafetlu wuñ ko ndax jàpp nañ ne ab lim bu ñu toll bu ko amee ci biir classe daal njàngale mii du jaar yoon lu ñu bëgg sax moo di ñu yokk salle de yi ci biir école yi ñu teewlu ceeb reportage bu Fatick Dieng Modou Diop. diggante tableau bi ak crête bi moom jàngalekat bi mu ngi dund li mu bëgg histoire ak géographie tey ji suba nag muy joxe cours bu aju ci tremblement de terre concentration bi mi ngi fii ambiance bi itam neex na lool ba noppi salle bi feex ndax fii ndongo yi seen lim àggul ñeent fukk. effectif bi ma am donc euh, moo ngi toll ci 37 élèves. fii moom élèves yi par ñaar la ñuy toog. d'accord Pia Ouakam amuñu jafe-jafe. mais nag euh, en fait au niveau national hein, on peut rencontrer mën a gis ay classes yoo xam ni la fa nekk ci ay ndongo dina lim bi mën na dem a dem ba dépasser euh, quatre-vingt. dogalu jëwriñ bi ñu dénk jàng jàngale mu aju ci ndongo yi seen lim ci salle de classe yi dem ba war a mat juróom-ñett fukk bu nu sukkandikoo ci SAEMS CUSEMS moom jàngalekat bi ni mbir moomee bu nu ko defee mën naa indi gàllankoor. Euh, pour man personnellement effective bi warul bon warul sax yegg 80 parce que bon bu demee ba quatre 80 loolu bon amphithéâtre lay gën a nuru que salle de classe. bon bu classe yi defee 80 moom qualité moom du fa nekk parce que. bon qualité enseignement dafa dépendre d'abord bon ci environnement bi parce que bon environnement bi dafa am solo lool ci maanaam aspect lu jëm ci wàllu qualité 80 élèves ou bien 81 élèves si benn salle de classe si bu fekkee table de bain yi doyut day indi problème parce que élèves bu fekkee dañoo toog par 3 ou bien par 4 euh, seen problème mooy problème attention les élèves ne sont plus attentionnés donc lan naan lan la ñuy def au lieu de s'ils vont s'adonner dañuy nekk di faux ou bien ñu nekk ils s'adonnent à à d'autres à autre chose qui n'ont rien à voir avec euh, euh, l'enseignement. dana xaw a difficile parce que liggéey bi dana yokku. nombre de copies mi corrigé dana bëri euh, élèves yi aussi xam na ne rek léegi âge bi dafa tel juróom juróom-ñett fukki élèves xale yu ndaw ci benn classe du yomba du yomba gérer yaakaar naa du yomba gérer ci carrière am bu jege daanaka ñaar fukki at ki nekk jamono ji euh, censeur bu lycée bu Wakaam ne nag ci li mu jàngale yépp mësta yor classe boo xam ne li mu ndongo ya ëpp nañu juróom benn fukk jàngale naa ci classe yi pendant euh, fukki at juróom-ñaar maa ngi ci classe yi euh, ci sama expérience mas naa jàngale classe yoo xam dem na ba juróom benn fukki élèves même classe d'examen classe terminale ñu war a pare bac juróom benn fukki élèves yor naa leen ci benn classe mais avec expérience avec accompagnement yi administration bi euh, yàlla def na ba daan nañ ci génn. professeurs yi ñu taseel di sàkku di tabaxaat ay salle de classe ba noppi itam jàppale jàngalekat yi ndax ñu am njàng mu mucc ayib fii ci Sénégal. ñu wax ci toogaanu ñaxtu liggéeykat kër docteur ya nekk sa ca Thiès infirmier chef de poste yeeg agent de santé yi ñoom nag génn ak doole ngir rek ñaawlu coupure d'électricité yi nga xamante ne moom moo am foofule ca post de santé ya nekk ci département bu Thiès lu ñu bëgg nag moo di nguur gi àddu ci ni mu gën a gaawee teg ci te fay leen seen i indemnité ak seen i heures supplémentaires ñu teewlu ci ab correspondance bu Cheikh Anta Diop say la ñëpp dikkoon rango ay morso yi xonk di ay infirmier chef de poste ay agent de santé communautaire dikkoon fii ci district sanitaire bu Thiès doon amal nag toogaayam ñaxtu ñoom de li leen metti mooy poste de santé yu bëri fii ci di diwaanu cees de dañoo coupé seen courant nee nañ de dañu ko jagleeloon nag collectivité locale yi waaye du benn mairie bu def ay jéego ngir mën a fay facture courant yooyu. naka jekk nguur gi moo daan fay courant bu fekkee nag dafa organiser ay réformes am lu mu dénkaane ak lu mu tayle na fexe ba ci biir dénkaane li ak tayle li waru garu gar yi mu dénkaane ko tayle ko loolu lañuy laaj ñu bëgg tey ci tey ñu leeral mbirum kuy fay courant li mën li leer nag ba leer mooy dispensaires yi mënuñu fay te duñu fay. agent de santé yi ñoom mer nañu ba futtu nee na nag teg nañu nag ci taabalu gouvernement bi ay jafe-jafe lu jëm nag ci seen i indemnité ay heures supplémentaires yi nga xamante ne ay weer a ngi ni de kenn fayu leen ko. liggéey bi dañ koy def ngir yàlla en fait mais ngir yàlla ba aussi dafa war a fekk si ah li ñu la war a jox ñu ndàmpaay jox la ko loolu moo amul fii san district sanitaire de Thiès mooy heures supplémentaires dañ ko dul jot pratiquement jamais à temps bu ñu ko jotee dañ koy tënk dagg-dagg yoo xam ni. yàlla rek xam lan moo si des euh, motivation étatique nag ñetti weer yu nekk lañu ko doon jox jot day arrivé muy dem ñetti weer ñeenti weer juróomi weer ba à la si génn saxel sax ñu soog ñu soog la jox la ko je que loolu si nekkul loo xam ni tax na travail di sawar. liggéeykatu kër docteur yi sax nee nañ mbir mi de jéggi na ndayo jéggi dayo goo xamante ne de buñ ci indiwulee saafara benn poste de santé wala bërëbu fajukaay dootul ubbeeti fii ci diwaanub Thiès. ci wàllu tàggat yaram la ñuy des euh, jeexalee wax ci CAN U23 final bi nag diggante Nigéria ak Algérie lay doon Nigéria moom moo dóor démb Sénégal benn bal ci euh, dara Algérie dóor Afrique du Sud ñaari bal ci dara ñaari équipe yooyu la ñooy dem itam ca Rio 2016 ci Jeux euh, olympiques yi Sénégal nag ak Afrique du Sud ci final bu ndaw bi ku ci door sa moroom it di nga fekki ñaari final ñaari équipe yooyu le fële ca Brésil fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru juróom-ñetti waxtu yi jaajëfal leen bu baax a baax. ci teewlu bi yeewu leen dañ ak Baye 8h17 mooy doog a jot ngërëm ñeel rédaction bu télévision Futur Média mu nekkoon euh, ñaareelu jotaayu xibaar yi euh, ci wolof la woon euh, ak Fatima Ba Jaxate ñu ngi koy gërëm bu baax ca kanam ci diggu bëccëg bi daañu àndaat ak rédaction bi bu ko defee ñu jukkil ñuy xibaar ñu fàttaliwaat leen ni mën ngeen am habitude di yër suñu site internet bi ñu waxati ko fàtte sax xaju fii moo tax ñu leen di fàttali site bi nag di www.igfm.sn tey ji lii moo nekk ci Euh, ci diggante Sénégal ak Nigéria finalement malheureusement ñu gagné Sénégal am nay jàngat yu am solo yoo xamante ni mën ngeen ko liir ci suñu site internet bi tey itam euh, di bis boo xamee ni moom lañ jagleel lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama di journée mondiale des droits de l'homme euh, loolee itam am na ay gëstu yu am solo yoo xamee ni mën ngeen ko fekk ci site bi lépp lu leen soxal ci wàllu politique culture ak sport mën ngeen ko fekk ci suñu site internet bi di www.igfm.sn foofee ay xibaar yu wér te la ñuy joxe bokk na ci site yoo xamante ni fii ci Sénégal euh, bu ñee di parparloo di bind lu leen neex fii euh, dañuy gëstu ba noppi itam joxe ay xibaar yu dëggu parce que loolu moo war ah dañoo de euh, nekk ci dëkk boo xamante ni ñun ñëpp dañuy ñaawlu taxawaayu site internet yu bëri parce que yenn saa yi ñu bind ay xibaar yoo xamante ni du dëgg waaye nag gfm point sn fexe nañu ba tàggat seen bopp ci di bind loo xamante ni ku ko liir dafay nekk dëgg te defe naa loolu hélas dafa am solo xam nga Baye Cheikh maa ngi nuyu. mbokk téléspectateurs yi di nuyu sama jigéen ñi le wax nga lu am solo de. parce que léeg-léeg nga gis nit ki bind benn article benn boo xam ni. daf ko bind ba pare pour pour chantage kenn. wala pour yàq wallaahi. dëgmal na dara. Mhm. xam ca tuuti rek. bind loo xam ne dafay doy waar kooku. Mhm. bu dee gor te bëggul dégg lu bon. Mhm. mën na la woo ngeen ñaar ngeen gisee yooyu mm-hmm. baaxul wallaahi baaxul parce que liggéey yooyu Baye mm-hmm. Cheikh mm-hmm. nit ki mën na ci am mën na ci mën na ci tedd waaye du ci terle mukk ci àddina wallaahi wallaahi te looy tedd te doo ci terle amul njariñ ba ba pare sax li ma bëgg a préciser làquma sama doom xas doomi jàmbur dafa fekk ni dañu ko vérifier ñu ni tama euh, ni euh, gis nañu liggéeyu euh, site internet bi di gfm point sn mm. xool itam ñeneen ñi waxuñu sit yëpp noonu la ñu mel ah. mais daf ci bëri léegi mm. ay sites yoo xamante ni dañuy bind rek pour bind wala bind pour yàq te loolee dañuy dem sax ba nit ñi dañuy tóox sax ci wax ju ñaaw dëgg la parce que ah. man mas naa mas nañu dajee ci benn jataay mm-hmm. benn xel dama ko ko ma ne ko ah nun géwél yi dana danoo waxtaan di discuter. waaw xamal li ngay bind. waaw li ngay bind nag na nga ko seet ba mu ba mu leer nga bind ko. Eh, eh, waaw eh. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. parce te Pape Cheikh. da dëkk bi dafa nekk loo xam ne daal dëgg daal nit ñi daal wax lu ñaaw moo leen gënal wax lu rafet. wallaahi wallaahi wallaahi dañoo dem sax ba léegi wax lu ñaaw sax dafa. Euh, dafa banal dafa am valeur léegi dafa am valeur. dafa am valeur léegi te pourtant bu njëkkaan. Euh, wax du ñaaw bu ndaw boo ko génnee rek ñëppay ŋaaw seen gémmiñ. Ah, baa ñu fay seen nopp mais léegi mën nga wax lu ñaaw sax nit ñi comme <laughs> def comme si de rien n'était. Ah voilà donc voilà voilà Ah. et puis comme je dis souvent dafay ñàkkal nit ñi jom ah, euh, ndax da nga ciy gis koo xamante ni euh, euh, bu ñu waxee lu ñaaw après ah. nit ñi dañ naan moo bu subaa de dañ koy fàtte ndax dañuy waxaat leneen fii mooy Sénégal donc loolu defe naa site internet yi am nañ ci devoir bu am solo moo tax ñu leen di ñaaxaat rek bu dee da ngeen bëgg ay xibaar yu wér wóor na ngeen sax rek ci di yër bi di 3w sa maam ja daal daan wax ni Baye Cheikh Cheikh lu mu daan wax ne la dëgg-dëgg bëgguma daal kenn ku ma tere naan sama café wallaay ma tere nan lay mel uh-huh. dëgg bëgguma dégg dara lu ñaaw wallaay kooku daf may tere naan sama café ay bëgg naa sama xëy bëgg naan sama café jërëjëf El Hadj Obane Mbaye Garmi euh, ñu ngi lay gërëm euh, euh, ci sa teewaay alxames bu jot ci yeewu leen bi pàcc bi nga ñu indil ñu ngi ko tuddee fàttali ko balaa ñu ciy jundu junju téléspectateurs yi dañuy dem fekki suñu correspondant yi nga xamante ni ñoo ngi ci 14 régions yi nekk Sénégal yëpp tey nag bëgg nañoo dem Tambacounda bu fekkee jàppandi na ki ñu fay fekk nag ci yoon di Moussa Omar Gueye am ñu itam yeneen i commerce correspondant yoo xamante ni ñu ngi daanaka un peu partout Sénégal bokk na ci di euh, ki nga xam ne ni euh, moo di Abdoulaye Diallo euh, moo ñu teewal ca Kolda maa ngi gis carte bi mais dites-moi ban dëkk la ñuy dem Kolda wala Tambacounda. voilà ñu dem Tambacounda Tamba nag bu ñu fa demee dañu fay fekk Moussa Omar Gueye euh, li tax ñu bëgg jokkoo ak moom tey ci fajar gi dañoo déglu euh, ci journalu RFM ni am nay mbir yoo xamante ni xew na foofu lee Tambacounda euh, am na yoon boo xamante ni benn camion moo ko baare ca suba ba tey ay nit yuy jaar ca boobu bor boobule pour tukki mënuñoo dem mënuñoo dikk ndax barrage boobule am na itam beneen coow boo xamee ni am na fa mais dañu koy jéem a comprendre ak ki nga xamee ni moo di suñu correspondant correspondant di Moussa Omar Gueye euh, Moussa ñu ngi lay nuyu Moussa Omar Moussa Omar Gueye lañuy ñuy a jokkool kon euh, foofu ca euh, Tambacounda mu gindi ñu ci ay xibaar yu ñu fa mën a jàpp ci dëkk boobule. Moussa. waaw Moussa. voilà ñu ñun am nañu retour ñu ngi lay dégg bu baax ci kaw Moussa ba jàmm nga fanaane oh là euh, euh, voilà mussa Omar Gueye dommage je pense que euh, coupé nañu ko bu fekkee mën nañu ko làmbaat mu jéem ñoo jukki ci xibaar boobu la ñu joxe léegi nii tey ci fajar gi lañu ko dégg ñi bëgg tukki jaaree ko ci tali boobu la nekk ca boori Tambacounda mënuñoo dem mënuñoo dikk ndax ab camion moo <laughs> baare foofu Mado yaa ngi may wax sànq am na camion màdd bu daanu. nag ah nag. voilà <laughs> mbàdd laa dégg. déedéet dafa neex. déedéet. <laughs> en fait dama ko dégg sànq ci xibaar yi nga mm-hmm. xamante ne bi ñuy ñëw di ko déglu ci rajo RFM ñu mm-hmm. naan maanaam oto demul oto dikkul ndax dafa amoon benn camion bu yeboon ay nag moom moo saaraan nag ci digg tali bi ba tax ah. na nag nag yenn yi dañuy daw dugg ci biir dëkk bi mm-hmm. moo indi problème boobu wuta naag màdd voilà donc je dégg ma dégg ma bu baax waaw camion bu daanu rek dégaa la waaye nag tamit yu daanu dina ci am yu faagaagal bu ñu tasaaroo yi ci dëkk ñetti dégaa daje nañu. bañ jàmm Moussa Omar Gueye ñu ngi lay nuyu. mbaa jàmm nga fanaane sant yàlla bu wér a wér euh, tey jii ca maa ngi koy junj léegi nii mais dañ lay bàyyi nga wax ñu ko ndax nettali ci Lamine Borom euh, lu ñu fa jàpp ci ay xibaar. voilà jërëjëf gannaaw bi ñu nuyoo mbokku téléspectateurs yi fi mu ne nii tey jii nag euh, ci xaaju guddi bi suuf seddee ay booru 3 heures du matin. ci nag la benn camion daal daal di daanu loolu nag diggante Koungheul la jàpp Kaffrine hmm. camion bi nag bi mu muy camion boo xam dafa soxe ko woon Mali yemoon euh, lu toll ci ñeent fukk ak juróomi nag ah. muy ay nag yu suur yu mat sëkk fi mu ne yi nag ñeenti nag yi daanaka ñooñu ñoom euh, ña nga waaye ñeent fukki nag yi ak benn dañu mujj tasaaroo dugg ci biir dëkk bi loolu nag nekk li nga xam ne tiitaange la ñeel askan wi ne foofu ndaxte ay nag yu rëy la waaye leneen li nga xam ne itam moo jax-jaxal ba ñu jot ci xibaar bi mooy hmm. euh, trois heures du matin cinq heures du matin ba léegi nii nit ñi mënuñu dem mënuñu dikk ndaxte route nationale la mu nekk ci corridor bi nit ñi mënuñu dem mënuñu dellu si boo xoolee mais mais mais est-ce que est euh, juróom fukki ay oto ci ay camion féete ci wàllu wu ne dafay nekk li nga xam ne dafay saga séméloo lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi looloo tax nag ki nga xam ni moom dénk lépp lu jëm ci wàllu Ageroute fii ci bët penku Sénégal di Mamadou Alassane Camara moom bi mu jotee ci xibaar bi nee na foofu da nekk na benn section ba nga xam ne mi ngi féete ci Ageroute bu Kaolack waaye daal nee na yëgal na leen ko te su mu ne ni ñu ngi def seen kestalaer kattan ba camion boobu nga xam mooy camion bi yëppoon nag yi te daanu ci route nationale bi te baare circulation bi mhm. ñu daal di koy jële foofu ngir nit ñi mën a yeggale seen demle ak seen dikk leneen lu jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoom moom seeni nag biir camion bi camion ba daal di wadd nag yu fës daal di ci biir dëkk bi. nag ya daw yeneen loraay yi ciy tiit ak wéeru bi nga xam ne dana ñeel ñi nga xam ne ñoom moom nag yooyu la. Mm. loolu nag beneen fànn la boo xam ne dana ci jublu ci wàllu jeex ko seet ngir jàpp nag yooyu la ci mën a gis ci àll bi. waaye leneen lu ñu mën a jàpp daal moom mooy donc route national bi ci jamono jooju ba ci wax waxtu wi ñuy wax nii. donc circulation bi dafa bloqué wu ci ñi nga xam ne dañu jóge woon fii doon dem ak ñeneen ñi nga xam ne dañu toqee ko woon booru Kaolack Ndakaaru doon ñëw fi nga xam ni moom mooy ci Tamba te di fàttali surtout li tax mu intéressant dafa nekk corridor donc benn route la boo xam ni mhm. Sénégal kese moomu lu ko boppam daf ko seq ak yeneen i réew ak yini ak yi ni mel looloo tax su mu nee ni mu jàpp ngir ñu wut ci ay saafara Pape voilà donc loolu xibaar la ñu ngi ñuy wax ni itam xaw ma ban hôpital dama déggul xibaar boobulee bu baax peut-être nga gindu ñu ci euh, qu'est-ce qui s'est passé ak ñiy opéré te nekk ci hôpital régional bi. waaw euh, xam nga démb ci suba intersyndical ñiy liggéeyee. ci hôpital régional bu Tambacounda. Uh-huh. dañu xamal amal benn assemblée générale ndaxte dañu seetlu ni. Mm-hmm. hôpital régional bu Tambacounda bare na ay gàllankoor yu fa ne. Mhm. saa su ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi dañuy amal ay programme ñaxtu mhm. te gis nañ ni ñi nga xam ne ñoo toogal nguur fii mhm. ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo toog ci ministère de la santé indi wuñ ci ay saafara yoo xam ne tax nañu ni lii mbir yi ay kilifa ñu ngi ciy taxaw loolu tax ñoom ñu ni démb li nga xam ne seetlu nañu lu toll ci weer ak lu topp mi ngi jege ñaari weer ñu nu programme woon war leen defal opération chirurgicale ci hôpital bu régional mënul nekk Mm-hmm. ndaxte li ñuy wax BPA visite euh, euh, bi nga xam nañ ko war a def pour anesthésier pour xam ndax kii war nañ ko defal opération wala waruñu ko defal opération. Mm-hmm. nekk na visite boo xam ne ña ko war a def dañuy laaj ay ndàmpaañ yuy toll ci euh, soixante quinze mille fukk ak juróomi junni. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy waa conseil d' administration bi bi ñu waxtaanee ba tënk nee nañu léegi mën nañ leen ci fay luy toll ci weer wu ne luy toll ci. indi muy cinquante mille loolu nag dañ ko bëgg programme ci budget 2016 mhm. looloo tax nag ñi nga xam ne ñooy médecin yi ko doon def ci laaj ndàmpaay boobu defatuñu VPA donc askan wi ñëw ci loolu mënatuñu dem ngir opération ci fi nga xam moom mooy ci opéra hôpital euh, bi nekk ci Tambacounda te mhm. hôpital hôpital di niveau 2 la yemul ci Tambacounda te dafa nekk ay dëkk yoo xam ni ñu ngi fii pare fi nga xam moom mooy ci euh, bët penku Sénégal léeg-léeg dañuy jógee Kédougou ñu leen ñu jógee Kolda am na sax ñu jógee Guinée léeg-léeg fii mhm. circulation yi bu amee ci xew ñëpp hôpital lañ leen yóbbu donc hôpital dafa nekk mbir moo xam ne dañ ci war a bàyyi xel yeneen jafe-jafe yi nag ñi nga xam ne euh, duñ ci sax dellu si moo jëm ci wàllu morgue bu bi saa su ne day fu a feebar euh, mhm. yi fa denc dafay mujj xet gi di jël ci wetu jumaa jàll bugg bi foofu ah bon da ciy wax saa su ne mhm. askan wi ak collège yi nekk foofu quinze ans bugg saa su dañ ciy wax donc mu nekk mbir moo xam ni état bi ci boppam ministère de la santé ñoom war a ñëw xool nan la ñuy waxtaanee direction hôpital bi nan la ñuy waxtaanee syndicaliste yi loolu lépp nag ngir njëriñal usage hôpital yi muy askan wi. parce que ñun ñi fi nekk dëkk ñu fi ñu affecté ñu fi ñi nga xam ne fii lañ dëkk ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. Euh, yàlla tere euh, safaan ak leneen day xew. Mhm. boo soxlaa nag bëgg dem ci hôpital bi hôpital li yàlla xam doy na. Mhm. donc en en réalité en définitive population bi nekk fii ci ñoo nekk ci danger. donc loolu la ñu mën a jàpp ci ay xibaar ñu ngi lay gërëm bu baax Moussa Oumar Gueye yaa ñu teewal foofee ca Tambacounda ab camion bu daano ba tax ca fajar ba tey benn oto demul benn oto dikkul et pourtant yoon boobule comme ni mu ko waxee léegi nii corridor la Sénégal daf ko bokk ak ay dëkk yu bëri euh, loolee dafay indi ay gàllankoor nak ya daanu El Hadj Mbaye Garmi nii euh, euh, ñetti ñetti déli la wala ñetti lan ñetti Euh, ñetti ñetti gàllankoor xaw ma ñetti. ñetti ñetti dégâts. ñetti dégâts waaw ñetti dégâts la <laughs> Baye Cheikh. Uh-huh. te sax des na benn xam nga borom nag yi jaaxle na. waaw jaaxle nañ kon ñeenti dégâts la. waaw te te tamit ña nekk ca dëkk ba. Uh-huh. bu ñu mànduwul xanaa juróomi dégâts kon lay doon. <laughs> dina am yu làqu. waaw jëf <laughs> jërëjëf ñu ngi gërëm suñu correspondant yëpp en tout cas Moussa Oumar Gueye moo ñu teewal foofee ca euh, Tambacounda xam naa ne bu ñu amoon jot sax euh, dem Kolda fekk fa Abdoulaye jàlloo euh, mais xam naa mën nañu ko leb rek ba ëllëg ci jotaay bi nga xamee nii daañ ci ànd ak ki nga xamee ni moo di El Hadj Assane mbokk yi dañuy jàll ci Café Info alxames bu jot dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne ci ndimbalu suñu ay taskatu xibaar euh, fajar gu jot ci waxtu wi euh, dañuy gindi euh, expliquer ñu yi ñu tuddee actualité démb nag wala bërki démb ba tey ñu ngi waxtaanee ci dogal boo xamee ni ma nga jógee ca ministère de l'intérieur ci xew-xew ak ribidion yi nga xamee ni dañu ko tere ci fin d'année bi ñaare bu ñu tollee fin d'année bu weesoo illumination de Noël yi ñoom guirlande ak ñoom seen dafa am ay fête yoo xam ni dañu koy organiser ci capital bi loolee nag am na ay tere ay dogal yoo xam ne ni euh, génn na ci ñun comprendre ñu ko bu baax euh, loolu loolu loolu mooy ponk bu njëkk bi ñuy waxtaanee ak Cheikh Tidiane Cheikh ñu ngi lay nuyu interdiction festivité euh, fin d'année yi par par ministre de l'intérieur lan lañ ci war a comprendre lan nga lan lan nga ñu ci nga ñu ci war a expliquer pour ñu comprendre. voilà donc gannaaw ba ma leen fayee Pape Cheikh di nuyu tamit sama jigéen nekk gar mi nga xam te ñoo nekk ci plateau bi ak ñi nga xam te ñoo di téléspectateurs yi. Mm-hmm. donc contexte bi nga xamante ni si la ñu jëlee googu les décisions parce que xam nga loo gis lu ne rek am na li nga xamante ni moo ko waral parce que véritablement Euh, dans un passé encore récent euh, Sénégal boo xoolee fête yu mel noonu c'est ay fête la woon dëggantaan donc on mhm. permettait à tout le monde de sortir pratiquement dans la rue mhm. boo xoolee sax état beeg mairie dañu daan jël yenn ci ay dogal mhm. euh, implanté un peu partout fi ay ay nga xamante fa la dem di fêter li nga xamante daal le de la fin d'année notamment boo xoolee Sénégal mooy place de l'indépendance demoon nañu sax ba place yi commencé

day compliqué si ñun. donc si le ministère de l' intérieur jël yenn ci ay dogal ni véritablement fête yi danañ ko encadrer yenn fête yi nga xam dañ koy fa doon faral di amal dañ koy daal di kon bokk euh, interdire pour la bonne et simple raison que dañu bëgg a sécuriser li nga xam te daal moo di dëkk bi mm-hmm. parce que boo xoolee euh, déjà que les pays yi nga xam ne ñooñu entouré notamment le Mali mm-hmm. euh, menace terroriste bee ngi fa mm-hmm. donc am na fa ay mbir yi nga xam ne xew na fa récemment nii am na mbir yi nga xam ne xew na fa ba am na parmi ces gens yi nga xam te dañuy daal di perdre leur vie y a un Sénégalais bi nga xam ne jotoon na si ñàkk bakkanam donc da ngay fàggu balaa ngaa lakkale ko moom di donc c'est une bonne idée ministre de l'intérieur tere Euh, euh, jël dogal euh, ñu tere ay xew-xew ci bisu fin bi. xam nga ñun lu ñu xam-xam ñoom ñu gën ñu xam di xew ci réew. mooy dañuy am yenn ci ay renseignements ils ont les mm-hmm. renseignements généraux yi nga xam ils sont partout. Mm-hmm. au Sénégal nekk mm-hmm. ci biir nit ñi nekk un peu partout mën na am sax fii nii nga xam fu ñu nekk sax am na ay RG c'est bien possible parce que comme ça que ça fonctionne dans ce pays. Mado wóolu ma ko de. waaw c'est bien possible. c'est bien possible duma ni moom la mais c'est bien possible. man man wóolu ma ko donc ils sont partout RGI dara am daf maa doyul tey. donc RGI ils sont partout de sorte que dañu am yenn ca information. boo demee président ko yónni au quotidien dañ koy jox ñi nga xam te di autorités yi. donc dañuy xam sur quoi la ñuy taxaw pour mën a jël yenn ci ay décisions. déjà que Sénégal moo koy wax on n'est pas à l'abri euh, boo xoolee am na yenn ci ay imam yi nga xam te jël nañ leen teg leen loxo parce que quelque part dañoo soupçonné que dañuy def apologie terrorisme mhm. ñu daal leen téye ngir mhm. xool exactement vraiment ndax seen loxo da ca taxam mhm. euh, temps yi gis nga côté yëngu leen aussi amoon na benn euh, comment comment on appelle benn genre kii à la bombe alerte à la bombe bi nga xamante ne mhm. amoon na fa bind ko mhm. ci benn auto affaire benn de foog état que a euh, nii bu ñu moytuwulee ñaawteef dina am donc mm, boo xoolee léegi nag jël nañ dogal googu pour nekk véritablement même fekkante ne day am aussi dañ koy réglementé ba dem ci li nga xamante ne moo di yenn ci ay hectares yenn ci ay fumigène euh, xëy na ñàkkul ne danañ ko listé ne telle catégorie de fumigène et telle autre catégorie de fumigène danañ ko interdire wax nañu dëgg ñooy wóoru la wóoru la quoi c'est ça aussi la situation il faut forcément que ñu jël yenn ci ay décision dañoo bokk voilà dañu bokk mais <laughs> bu fekkee am na interdiction yu mel nii noo def gis ñoo xamante ne ñoom il faut ñu bañ a loi bi def li nga xamante ne moom la ñu sentir mhm. en se disant que tey jour de fête la donc damay mhm. bi la genre yooyu est-ce que na loo xam ne dañ ko prévoir pour koo xamante ne nangul respecter loi yi ñu teg parce que xam nga loi euh, bijou euh, dañ ko fi ko bu ñu demee ba nit ñàkk ko respecter rek ah, loolu day fekk que état bi euh, jëlul li nga xamante ni mooy li war parce que tamit état nga am les moyens répressifs maanaam am police am armée am gendarmerie am justice jël dogal ni lii dañ ko war a respecté nit ba bañ ko respecté. Mm-hmm. Ah, non loolu pour man. benn citoyen ëppul baat. dinañ pour man pour man il faut il faut il faut juste communiquer et comme on dit mm-hmm. au-dessus de la loi. képp nga xamante ne def na li nga xamante ne waroon ak euh, la yoon wax. ñu raq sa ndigg comme on dit. donc euh, loolu moom amul sax am. Euh, amul hésitation voilà amul hésitation. moom daal at mi daal vaut mieux prévenir que guérir. wax. Mm-hmm. kon daal réveillon yeeg yëpp nañ ko def ci kër yi. waaw te ñun sax ci kër yi lañ ko def ba Baye Cheikh. waaw ban ca tolloo. <laughs> ah non non non. réveillons mais euh, la maison. voilà ah, donc pour cette année. Euh, vraiment vraiment réveillons réveillons la à la à la à la maison. voilà après euh, ñun ñun nag waa Dakar dañu am culture 31 mm. décembre. dem place de l'indépendance. jeexal at mi taal pétard et tout ce qui s'ensuit mais comme jamono neexul. voilà contexte bi contexte bi moo xaw a graaw. Euh, donc euh, ñun euh, nous sommes d'accord ak décision boobu la nga xam ni mu ngi jógee ci gouvernement bu Sénégal ci ndigalu ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo donc on comprend mieux cette information j'espère aussi que ñoom dinañu publier yi nga xamante ni mën nañu ko def ak lu ñu mënul def ah. parce que ay dogal moom boo koy jël war na am ay mesures d'accompagnement pour que population bi gën a comprendre lan moo leen war ak lan moo leen warul je pense tàggat yaram parce que daanaka mooy sa spécialité euh, démb rek euh, Sénégal yëpp euh, bu ñu xamee lu xew ci match bi ci ñu stade c'est grace ak yow ak ñi nga àndal ci rajo Futur Média match bi ci diggante Sénégal la woon ñu dóor Sénégal et pourtant Sénégal jege woon na lool Rio ban jàngat lañ ci mën a am. damay àpp benn kàddu nga xamante ne ñoom garmi li ñu koy wax bëri na. moo di xalam demoon na bay neex. wallaay buum <laughs> parce que. Ah, man li ma seetaan xam nga man sax je ne suis pas match. waaw waaye li ma seetaan. ñoo naroon gañe ñu góorgóorlu mais occasion di ko dugal. ah dëgg la dugal de. faut parler des occasions. oui bal day gaaw waaj gaaw. mais moom sonn na de. waaw gis nga démb démb fete su ci rajo bi ba sonn. waaw même man yëg naa sa ay doom démb. gis nga gis nga Mado. da da ba ma yeewoo suba gi laa ko sentir. tu l'as dit. ba ma yeewoo suba gi laa sentir ne tey jii. Euh, du luy dox. te te te ba mooy dugg studio Alassane Samb yëpp ñëw na à l'entrée à quelques match. mu ne ma lu tax ma ne ko xam nga football euh, la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle euh, la réalité d'hier n'est pas forcément celle. y a pas de grande équipe en fait. parce que boo xoolee Sénégal dafa déroulé. les trois premiers matchs dañoo gagné population bi ci collé. donc mu am tout un bruit autour de l'équipe gars yi commencé ànd ak équipe beeg yooyu. mais démb boo xoolee équipe bu Nigéria mm-hmm. Sénégal dafa ñëw. à li limite ko pratiquement de bout bout. Mm-hmm. maanaam am ay occasion net de but am ay jàkkaarloo am lu ne mais dugaluñu ko. Mm-hmm. donc yooyu souvent boo xoolee day wëlbatiku. Mm-hmm. te boo xoolee le but mi nga xamante ni euh, li nga xam ne moo gënoon a déterminant sax mooy penalty bi nga xam am nañ ko. juste à à à à la mi ba match bi di waaj a jeex à la mi donc boo xoolee bañ ko amee man maa ngi ne malal ña nga toog si studio mais maa ngi nee malal. Euh, boobu maa doon wax. nee ma la je te laisse reporter le penalty. mu ne ma lu tax ma ne ko. parce ko wallaahi yàlla xam na la sentir ko. Mhm. ma ne malal vas-y et quand on a raté ay yëfu jinne ma ne ko question yëfu jinne parce am na li nga xamante ne boo ci yàgg di yëngu. à la limite da ngay dem ba da ngay yenn yi donc boo xoolee Sénégal. Euh, dem nañu on a perdu il peut y des regrets. Mhm. mais tout de même euh, bu ñu fàttali ni objectif de départ bi moo di qualifier aux Jeux Olympiques. lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy léegi chance su Sénégal wala amatul benn chance. si ah am nañ chance. chance xëy na nag du ñu lu lew lu wóorte woon parce que door nañu demi final. d'accord mais laata ñuy door tournoi bi suñu objectif de départ. mooy dem ci Jeux Olympiques dem am ci Rio possible match de nga xamante ne a dox samedi. Mhm. suñu diggante ak Afrique du Sud. Euh, buñ ko gagné dañ dem Jeux Olympiques. Mhm. Euh, buñ ko gagné tamit euh, danañ dem jouer benn match barrage ak benn équipe bu Jeux olympiques ba lay woon. Euh, ba ñuy di dem euh, à Londres. Mhm. noonu la ñu woon aussi. dañu joué benn match bara ak benn équipe Asie gagné ko soog a dem aux Jeux olympiques mais on aimerait bien cette fois-ci. Euh, mhm. que gone yi relever en tout cas de cette défaite parce que mhm. tamit bon. perte comme ça day metti forcément dina am ay séquelles mais je pense que le travail psychologique nga xam moo war. kii di Serigne Saliou di sélectionneur équipe bi war nañ lu baax lu ne wax naa ko démb ndeysaan je pense que normalement war nañu desewaat ak ñi nga xamante ñoom ñoo di waa Afrique du Sud mooy match de mhm. match de classement donc final la aussi parce que boo ko gagné di dem Rio de Rio au Brésil pour les Jeux olympiques à venir au mois de juin donc je pense que véritablement war nañu def li nga xamante mooy liggéey bi war parce que mhm. tamit se euh, réveiller d'une défaite dafa dafa xaw metti c'est ce qui est sûr moo di tey réveil sera pour que véritablement ñu fàtte cette déconvenue parce que c'est une victoire bi nga xamante ni ki ñu tendait la main malheureusement on n'a pas su l'exploiter le Nigeria a su faire le dos comme on dit euh, parce que ay compétiteurs lañ tamit Nigeria Nigeria jël na Jeux olympiques temps ñoom Jay Okocha mhm. donc euh, boobu ñu on était encore beaucoup plus jeune mais je me mhm. souviens que boobu tamit defoon nañ sax escale sur la route du retour defoon nañ escale jàllee cadet ba senior ñoom ñëpp dañoo daal jël li nga xamante moo di coupe yi donc euh, ce sont des compétiteurs démb wane nañ ko parce qu'ils ont su faire le dos mhm. accepter la domination mais malheureusement Sénégal exploité ñu li nga xamante moo di occasion yi donc ñoom ñu daal am un nga xam ne c'est coup du destin mésentente bu am entre défenseur central ak góol bi ñu mbëkkante ba pénalty am fa ak carton rouge Nigéria exploité ko gagné ko maintenant il faut savoir se relever te xam ne suñu objectif de départ moo di qualifier aux Jeux olympiques de Rio c'est encore possible ce pas gagné euh, c'est pas parce que Afrique du Sud bi gagné woon nañ ko en match de poule 3 buts à 1 ce qui est mooy match bi nga xam ne moo nar dox suñu diggante ak ñoom le samedi dinañ ñëw jaayante Euh, ah ci ci football réew. dafa baax ci palmarès ñu ne parce que équipe nationale bi ngay gis nii ñoom daali daali sportif la. voilà ñoom Pape Ndiaye Soare c' parce que. voilà cette a cette éclosion mooy commencé dëggantaan à partir des Jeux olympiques. voilà daali la daali la daali la mooy dégg naa daali à ah, mbay. dem naa Jeux olympiques ak coupe du monde. Hmm. waaw oh, mooy dégg dégg na daali. waaw ci woyu mag yi la bokk. waaw mais mais déggoo. <laughs> man de leen rek moom a ci jaaxal tamit supporter yi tamit. lan moo

Ousmane Gane daf ñu mën mais malheureusement cela n'a pas suffi. Mhm. léegi la des ba des moo di que objectif de départ bi aussi bu ñu ko fàtte moo di c'est une qualification aux Jeux Olympiques c'est encore possible ce sera contre l'Afrique du Sud. Mhm. mais nañu jàpp ne mënut a yomb match boobu. te way bi gën a naqari ci wayu supporters yi mooy fekk si leen dóor leen. loolu ñaaw na <laughs> mooy way a naqari na te dañu ñoo fekk y a eu un débat. tamit foog ñu leeral ko y eu un débat tamit si penalty bi nga xam ne ñu ko raté Mhm. parce que Ibrahima Sori Keita moom moo raté penalty bi mais mhm. yaakaar naa ne penalty ku koy door a koy raté mhm. mais au delà c' est peut être euh, bu mu ko raté aussi ça ça ça pose problème parce que ñenn ñi dañu am benn jugement gis ni dafa am benn genre désinvolture nga xam ne moo fa am maanaam teg penalty bi door ko à la sans conviction raté ko euh, am na ñi nga xam ne gisee nañ ko noonu am na ñi nga xam ne dañu gis ni euh, peur que moom boo penalty yaa une bi nga xam ne da koy da mais aussi bu fekkante ne amoo yenn confiance ci yow dafay feeñ à dafa jël bal bi parce que bi te boo xoolee loolu tamit euh, dafa di nga xamante gàllankoor na équipe bi maintenant li des ba des aussi moo di moom euh, avant que ñuy door sax le tournoi match amicaux yi nga xam ne doon am moom la moo doonoon le tir attitré des pénalty jotoon na dugal même si biir tournoi aussi dugal na pénalty pénalty mooy suñu match boobu nga xam ne dafa nekk euh, ca Conakry mhm. suñu diggante ak Angola boobu période je pense qu'on avait suspendu le stade Léopold Sédar Senghor mhm. Sénégal di recevoir en Guinée mhm. donc boo xoolee euh, les déboires de Demba Ba ci loolu la départ ba nu mu yegsi bon pour le jeune euh, Keita yaakaar naa ne tamit dina am ay circonstances atténuantes ñu wax ak moom pour lui permettre en tout cas de revenir et xam ni l'objectif de départ encore une fois mooy de la qualification mais nañ xam ne mënut a yomb parce que Afrique du Sud ñu la leen door a match de poule. Mhm. donc euh, lii final la ci ñoom. Mhm. et par conséquent lu wóor te moo di duñ ko bàyyee noonu Sénégal. merci Cheikh Tidiane ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon euh, Café Info ñaari ponk yooyu defe naa comprendre nañu ko grâce à vous euh, journalistes yu groupe Futur Média ñun dañuy gën a comprendre actualité naam joxe ko ci ay journal baax na waaye di ko expliquer itam askan wi ñu gën di comprendre loolu itam dafa am njëriñ donc loolu moo tax Café Info juddu ñu bàyyi la nga daw bu jot ci rajo Futur Média mbokk ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média yeewu leen la seule matinale qui vous réveille et qui vous éveille ca kanam euh, dinañu waxtaane lépp lu jëm ci wàllu wér yaram ak Fatou Kiné Deme Niaba euh, bërki démb dañu fi invité euh, président fédération bu cyclisme mu ñuy expliquer am na feebar boo xamee ni amoon na ko ñu tuddee ko insuffisance rénale waaye nag li tax mu tanee dañu ko defaral beneen rein loolu ci biir waxtaan wi laa xamee ni amul Sénégal mais tey dinañ ci jéem a waxtaan ak ki nga xam xamee ni euh, moo di euh, professeur euh, Boubacar Diouf defe naa moom mooy initiateur loi boobu nga xamee ni jëm na ci wàllu transplantation rénale ñun Sénégal bëgg nañu ko parce que am na ñu bëri ñu feebar ñu ko soxla te bu ñu ko soxla daf leen di jaral ñu dem bitim réew te du ñëpp am moyen wu dem bitim réew segam feebar bee jafee faj ci ay moyen waxatuma laak loi bu amul pour ñu mën ko def fii ci Sénégal fat ki ne ca kanam di ci ci waxtaan di la jaajëfal encore di nuyu yi. di nuyu également ñi nga xamante ni ñoom ñooy teewlu euh, ni ñu ko waxee Pape Cheikh. Mhm. Euh, nekk na lu am solo transplantation rénale waaye bu ñu fàtte ni. Mhm. loi bi euh, boobu ba léegi ñu ngi doon sàkku ngir voté ko. Sénégal mais mhm. finalement voté nañu ko. ah c'est bien finalement nangu nañu ko finalement en fait député yi nangu nañu loi bi. parce que tey ki ñu invité sax d'ailleurs c'est le professeur Boucar Diouf il est le chef de service néphrologie bu hôpital Le Dantec. mais c'est également l'initiateur de la loi. donc yaakaar solo fii dinañu gërëm gën a faram-fàcce li nga xamante ni moom mooy transplantation rénale à quand l'application nag loolu moo des fi mu nekk nii ci Sénégal ci kanam tuuti ni ñu ko waxee dinañ ko fram fàcce voilà euh, donc euh, moom sax yegsi na moom laa doon def si ñi noonu pour ñu toog mu toog foofu ñu defaral ko kafeem ak yu baaxam euh, mu naan biiram tàng tuuti euh, yax yi yeewu comme ça <laughs> mu mën ñëw expliquer loi bi nga xamante ni <laughs> lu ma def lu lu lu ma lu ma toj tabaxaat ko. <laughs> bisu euh, comme jeudi bu jot dinañu waxtaanee euh, lépp lu jëm ci wàllu euh, science man grâce ak sa reportage yi damay comprendre ay affaires yoo xam ni musuma ko comprendre damay am paresu sax di ci def ay recherche mais heureusement qu'on comprend on comprend plein de choses am na lu ñu de gravitation. gravitation Pape Cheikh et surtout loi universelle de la gravitation bi nga xam ne dafa déterminer force bi permettre planètes yi di tourner autour du soleil sans mu am collision. c'est la force qui te permet de marcher sans pour autant nga naaw. dëgg et c'est la force qui fait que par exemple su ma jëlee stylo bi bàyyi ko nii day wadd donc c'est une force boo xamante ne ay corps yuy jàkkaarloo wala yoo xamante ne dañu nekk euh, côte à côte dañ koy exercer ku ci nekk sa moroom. Uh-huh. terre bi daf koy exercer ci ñun ba duñu daanu bu ñuy dox. du ñu naaw comme euh, boo nekkee dans l' mhm. xam nga espace bi booy déplacé wu. te en suspension te en uh-huh. apesanteur. Uh-huh. donc loi boobu la ñuy wax tey force bi naka lay interagir entre deux corps naka la ñu euh, la Isaac Newton defee découverte yi et puis nan lay euh, ban ban importance la am ci suñu dund dans. voilà tous les jours avec le professeur Cheikh Sène donc chef de département physique bu UCAD. jeex na kon ci kanam lay nekk gravitation boobu la naka lay naka lañ koy comprendre pourquoi. Euh, bu ñu wanee ci documentaire yi ñu gis ni euh, ay affaire yu bëri dafay tourné ci parmi bulbul yu bulbule yooyu di tourné ñun am na ci boo xamante ni ñun ñoo ci ne alors noonu muy tourné noonu pourquoi ñun du ñu daanu du ñu bougé euh, gis ngeen ko nii télé beeg caméra yeeg ni ñu ko tegee nii et pourtant ci bul bi bi ñu nekk mu ngi def nii rek voilà regardez ces images là donc Bijou nous parlera de tout ça ça nous permettra de mieux comprendre et à chaque fois qu'elle finit ses reportages on lépp lu jëm ci wàllu science ndekete c'est pas sorcier mm. loolu ca kanam lay nekk Mado yow itam euh, euh, da ngaa xëy tey nii da nga doon ségrégation mais léegi bàyyi nga ségrégation <laughs> jigéen ñi rek ngay toppatoo euh, seen i ak seen i xot xotaan mais à partir d'aujourd'hui di nga gën a jàppale góor ñi di leen jox ay idées de sañse effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee di nuyuwaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan <laughs> waaye tey nag foog ñu jàpp ci comme boobu ba léegi nag yaa ngi ciy duut baaraam jot na nag ma gëstu vraiment jàppoo ci combat góor ñi quoi <laughs> tey daal dañu dem jàppul ci suñu combat quoi. <laughs> duñu lakkal ak bëlës ak robilo. en tout cas wallaay de waaye fi ne nii daal xam naa damay indi benn collection boo xamante ne dama koy jéem a proposer tonton Garmi ba xam ndax dina ko adopté. parce que léegi nag dafa am benn tendance boo xamante ne dafa xew dañu moderniser yére olof yi ba nga xamante ne. Mhm. nit maanaam boo dematee ci takk sax mun nga fa continuer dem ba ca réception ba. Mhm. te du aaju nga demaat ba sa kër sol costume wala loo xamante ne euh, mun na méngoog réception bi nga jëm dinañ. jànkoon parce que parce mhm. que man j'ai compris plein de choses Euh, ñun par exemple dañ daan rus soit sol euh, yére olof da nga gis euh, góor ñu bëri xëy na man li mm-hmm. may génn télé sax moo tax ma am ci ñaar fukki armoire ak benn dama cee bëri nag yére olof yi <laughs> mais am na ci ñoo xamante benn yére olof la ñu am benn marakis mm-hmm. ah toi tu nous as fait comprendre mm-hmm. yére la mën nañ ko sol jour de la semaine mën na bañ a encombrant parce que maintenant dañu koy defar pour góor ñi ba mu simple effectivement dañ koy defar ba mu simple ba nga xamante bu fekkee da nga ci namm yére tubaab di nga ko olof di nga ko ci gis donc ONC Ndiaye nga xamante ne pro la moom dinañ ci gën a gindi bu ci kanam jeex na ca kanam lay doon euh, El bon bay Mbaye Garmi euh, ca kanam dinañu waxtaanee euh, ki tax ñu naan baadoolo waaw xam nga Baye Cheikh bari na jataay yoo xam ne yii bu tasee. Mhm. kenn tasu ko baadoo rek moo ko tas. dëgg la moo tax tey ñu di baadoola mhm. mu mu yemoog lan. Mhm. journée de lan. journée de l'homme droit de l'homme journée mondiale de des droits moom la yemool moom la yemool ku ñu nekk ah. bu ñu la bàyyi ak sa droit <laughs> dëgg la. baadoola bu la bàyyeeg say droit. nga ne ci jàmm nga ne ci jàmm. moo tax ñu di baadoola. mais mais hélas baadoola bi gën bee foor nga xam ne defe naa mooy doctorat xaw ma thèse la xaw ma tëfal la tudd ci jàng njàng yi gën a fort yi. baadoola bi gën bee foor dégg naa mooy paax nduux. ah nduux nduux nduux. <laughs> bu gën bee fort la daal. kon ca kanam euh, dinañ ci waxtaan ak euh, El Hadj Oman Mbaye Garmi euh, parti boobu la ñoo ngi ko tuddee fàttaliku Alfi dama la gis ngay karamalise ay soble. tout à fait yaa doy waar nag Alfi. ah mais ci ci recette bee ko laaj Pape. et à chaque fois ngay togg su ma rends compte que ndekete togg aar la quand même. oui aar la waaw togg togg togg. quand même oui moi je connais je connais une amie madame Diagne elle s'appelle moom la moom la moom la jëkkër ji naan du dëgg Diagne. c'est pas vrai Diagne alors moom elle dit mën na togg ba pare du la mën a expliquer ni lii ak lii la ci def parce que da koy xool day xool ñu ko jëkkëram bëggee. te loolu inspiration la. exactement inspiration nag c'est de l'art moo tax ma ne togg c'est de l'art. loolu mooy togg nag. waaw togg moom boo ko ah, defaree Euh, d'habitude sax boo ko defaree buñ la ko waxee nga defaraat ko suba waroo ko mën. doo ko mën ok waaw doo ko mën. donc tey dañu jël benn xam nga boo déggee sandwich lu yomb la. Mm-hmm. mais bii dafa nekk benn sandwich boo xam ne c'est euh, dañ koy defaree à base de steak ak oignon caramélisé maanaam mu nekk association xam nga boo déggee caramel mooy lu am suukar donc war nañu mën a jël soble togg ko uh-huh. ak suukar d'une manière boo xam ne buñ ko associé ak yàpp. def ci dem ci sandwich yëpp dina mën a neex. parce que am na yoo xamante ni xel nangu ko mais togg mooy mën a. tax nit nit nit bi xel xel te association la rek suñu soo dosé soo soo maanaam soo boolee dosage yi. Mhm. di nga ko mën a consommer sans sans toujours avec les beurres Sofia pas cher. voilà yi nga xamante du mën a ñàkk ci cuisine bi. voilà sinon donc maa ngi caraméliser samay samay soble. Uh-huh. su ñu ñëwee rek ma expliquer. bien. na nga cinq cent bon kay naka la ñu ko waxee cin cin cin cin bu naree neex euh, su baxee xeeñ voilà euh, et puis nag temps yi Alphie dafa cokkal nag ah. am na ay wax yoo xamante ni bàyyil di ko wax ci kanamu El Hadji Ban Mbaye Garmi moo tax souvent may wax téléspectateurs yi ne ñun ñooy feeñ dëgg la ñooy ñooy wane émission yeeg yooyu mais li ci a dàq li ñuy wane te dina am bis boo xam ne dinaa def télé bi famille carte de ça jël yëpp teg ay caméra cachée euh, di ko wane def ko ñaar fukki saison ak ñeent di ngeen xam di li ñu nekkee lu ko dàq du am <laughs> <laughs> je te jure ah et puis euh, Kya Aidara mu ngi préparé wu ci ginnaaw on va la retrouver dans quelques minutes pour waxtaanee emploi euh, xam nga ñun wax yi jëriñ ak yi bégale euh, naka la xale yi mën a def rek ba am liggéey njëriñu mbir yu am solo yooyu nga xamee ne ñu bëri dañuy am ay diplôme et pourtant ay chômeurs la ñuy nekk fan la ñu mën a jaar ba am liggéey on va en parler ak Kya ce sera pour tout à l'heure sinon Aminata elle sera pas avec nous pour Défi 10 on la retrouve certainement d'ici jeudi prochain en gros c'est ce qui vous week-end bi euh, ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média juste après cette petite pause réclame publicité on se retrouve pour la suite